مواهب الجليل بشيء مختصر خليل مواهب الجليل لشرح خليل فائز لأمجل لقال وحنا نه إيه. اللهم يبري الله صلي على نقول قولا محمد انت محمد على كذالي مكسا خلي صاحب نظر انك فاي بعرض من صلى تلي مكو جلي بتلك عن دار شير لم انا جلي ينجي سيرنتي بي صلى الله عليه وسلم xam nga ñu ngi woon si julli si yonent bi moom la leeral ba léegi bu leen ñëwee ne yàlla yàlla nga julli si Muhammad sallallahu lii mu nangam ak nangam ak nangam ndax dañ la fay lii mu euh, ku julli si yonent bi lu toll noonu maa ngi julli si yonent bi lii mu mindee fi ndax dañ la fay ku julli si yonent bi lii mu mindee fi wala déet loolu am masar la ki xaala wax na ne la bur yàlla salli yàlla nga doolu ko ala muhammadin ci muhammad adada kaza lii mu lii xal yu saabu bi adadi man salla ci limu ku julli bi tilka adadi ci yooyu la lim wala déet faidatun njëriñ li mooy xaala wax na al abiyu ne unzur xoolal law xaala boo xoon allahuma yow bur yàlla sali yàlla nga doon xewal ala muhammad ci muhammad xale rek za liimu lii xal yu saabu ndax danañ ko fay bi adadi man salla ci limu ku julli bi tilka adadi ci yooyu la lim mu ne kaana nekkoon na ibnu arafa ibnu arafa yaqul di wax ne yoxsalu dañ amal loo ñeel ko mais sawaabi ci fay ak taru lu ëpp من ثواب من صلى سيون كجل واحدة بن جل ولا ثواب من صلى دون كفيون كجل بتلك أعداد سبوب اليوم نعم يلا يلا نقول لقبل محمد عبد الخلق اليوم من دفي مو بطيا بعند الله مصلى على محمد يلا يلا نقول لقبل محمد ما دون لفاي نك كجل سيون تقول تولني اليوم من دفي ده لون لا ابن عرفه وقت نحن ويشهد دنا سيد لهذا أن لي حديث من قال حديث آه، حديث من قال حديث يرنت بما خن من قال كو سبحان الله تدنا مسل بي على عدد خلق لي من دفي آه، خمغا فوف تدنا في لي من دفي نينا من حيث الدلالة تي تكتل على أن التسبيح نسبال بهذا اللفظ تي بير بات لو نيان لكم مزيه ان غنين لو خمني نيكو ku ko wax ku ko waxewu noonu maanaam yonentu bu fekkoon ne maa ngi sàbbaal yàlla lii mu mindee xamul benn njariñ du ko digle waaye ba mu diglee nga wax lu toll noonu mooy wane ne soo waxee lu toll noonu da nga ci am ngëneel ana luy wane nag doo ci am ngëneel lu toll maanaam boo ne maa ngi sàbbal yàlla lii mu lu toll min lii mu mindee fii ah comme que yonent bi santaane na ko moo ëpp tiyaaba nga ne maa ngi sàbbal yàlla rek hmm. waaye léegi ana lan mooy wane ne yàlla du jox ku sàbbaal yàlla lu toll ni lii mu mindee ana lan mooy wane ne yonent bi boo julee si moom lu toll ni lii mu ne maa ngi julli ci yonent bi ni loolu lii yàlla du fay tiyaa boobu ana loolu jàpp naa ne <coughs> boo delloo ci xadis innamal amalu binniyaat wa innama li kulli imri'in ma nawa bu fekkee sa yéene mooy yàlla bëggoon ngaa julli ci yonent bi lu ni lii mu mënoo ko nga ne yàlla sama julli gii maa ngi yéene nga jullil ma ci yonent bi lu toll ni lii mu mindee fi wutuma ci soo man nga am tiyaaba ku jul ci yonent bi lu toll ni lii mu mindee ndax loolu sa bu dee sa yéene la ndax yow nga loo julli ci yonent bi xeeb nga ko xam nga ne lott nga nga julli ci yonent bi lu toll noonu mën nga am tiyaaba boobu ñu ma amal bi niyaat comme ni ñu ko waxoon ci sant yàlla rek والله عالم من اجل دلال تو جي تك تلالا ان تسبين سبال بهذا اللفظ تي بلي بات لو نيل نكو مزيت نغنيل واخ سبحان الله لي مومن دي في امنا نغنيل موتاخ يون بسنتانك وي لا نيم امول بن لم تكن نيكو لو ديكو نيل فايد بن نجرين بو امتون نغنيل يون تو دوان كو سبحان الله لي مومن دي في باسكو واخ لي مومن دي في امول لو بن نجرين كون لوكو واخ يون تي بسنتانك مكو سنتانك مو وراني سبحان الله عدد خلقي maa ngi sabal yàlla lii mu mbindeef mu ëpp rek inta jeex na foofu la pare si julli si yonent bi ala sayidina suñ sang ga mooy ku mat kuñ soxla bu ñu waxee sang rek hmm, mooy mat ñu di ko soxla واستعمال وجفني كوكو في أخي غير لا يتشاقي كدر يالا سايق ونو دغن لا سنغ من كوكو وخيران كدر يالا نتاق تدن بيشم الكتاب والقرآن وسنة والسنة وسيدا يونا قوموا لسيدكم ينتي وحنكو سعد دينو القرآن تدنكو سنة تدنكو وذكر تدن أدما ميني دما ميني في شهر تسهيل في شرع تسهيل أن ابن المنير جلس ابن المنير في ذلك سرور ثلاثة أقوال يتوخ ndax sang mën nañ koo booyal rek booyal moo ñu tuddee ko rek keneen ku dul yàlla wala mënuñ ko <laughs> am na ay wutee ba léegi waaye loolu mu jafoon naa ne waruñu waruñ soon wutee <laughs> jawaas itlaaq am nañu ne dagan nañu booyal ko àllaahi si yàlla taala kawe na wala xëy na ku nga ne yàlla wala neex nga ne sang jublu si nga wax ko ci keneen ku dul yàlla mm-hmm. wamtinaaw itlaaq yi am nañu aaye booyal ko àllaahi ci yàlla taala kawe na ñi ne ko ci yàlla dafa xaram moom sang ndax yàlla am na loo loolu waxa kaaw nettali na ko an Malick jëlee ci Malick woo moom mooy woo moom alladi moo ne xam ne dañ ko dégg min kalaami muqaddimaat ci waxi muqaddima maanaam nee na wax jooju nettali nañ ko jëlee ci Malick mooy booyal sang ci yàlla dañ ko xaraamal wamtinaaw itlaaq yi am nañu aaya booyal ko ala xeyrillaahi ci rudur yàlla am yoo xam ne daga nañ nga booyal ko ci yàlla ak ci rudur yàlla dagan na man sang rek am ko xaaye ci yàlla ak rudur yàlla yàlla kenn du ko sang lu dul yàlla yi kenn du ko sang su nga su ma sakkara toog mu tudd anin naxaas ci naxaas raabaan ñeenteel wax ji woo moom jawaas idlaaq yi mooy daganal booyal ko laa xëy laay ci yàlla dégg nga nee na ilaa yu arafa lu ma ñu def ko fa ci al bi al ci al dégg nga buñ ko defee maarifa ci al nag euh, euh, su boobaa daganul ñu booyal ko dégg nga wala boog dagan na ñu ñu boyal ko ci dudul yàlla parce que bi am xaal dafa ne war azaru gën a feeñ aljawaasu mooy dagan bi ci alif wala ak laam li xëy ñee ñeel dudul yàlla dégg nga dafa am euh, ñu nettali jëlee si naxaas ñeenteelu wax xam nga dafa am ñu dagan nañ nga wax sang ci yàlla ak kudul yàlla ñu ne déedéet dafa xaraam ci kudul yàlla waaye kon xaraamul ci Euh, dafa xaram ci kudur yàlla kon xaraamul ñu wax ko yàlla mm-hmm. ñu ne dafa xaram ci yàlla koy wax sang waaye xaraamul ci kudur yàlla ñeenteel wax gi moom mooy ne amee alif ak hmm, mm-hmm. mën nañ ko wax kudur yàlla loolu la ñu tere si naxaas dégg mm-hmm. lam tuddaan maalikin ci maalik meneen man yi ci tere ne dafa xaraam ci kudul ñuy booyal sang ci moom wala boog dafa xaraam ci yàlla ñuy booyal sang ci moom huwa moom alladi moo ne xam yufhamu dañ ko dégg min kalaam muqaddimaat ci waxu muqaddima wala di la nga xam ne fii rasmi salaatu moo nekk ci ñaareel ba waxu ñaareel ba mooy wax njëkk ñi mooy dagan na ci lépp boo demee si rasmu salaat la nga fa fekk mooy waxu ñaareel mooy sang moom dafa xaraam ñu koy booyal ci xaqi keneen ku dul ci yàlla lu may waxi ñaareel ji njëkk ñi mooy dagan na ci ñëpp waxu ñaareel mooy dafa xaraam ñu koy booyal ci xaqi mel mooy ci yàlla loolu la de ok eh, dafa xaram ñu boyal ko ci àq yàlla loolu moo nekk si rasmu salaat min samay ashab ci yi xam ne ashab dégg na ko min kitaabi salaat ci téere julli dégg nga wala boog min samay asab nekk na ci wax waxu asab min kitaabi salaat ci téere julli alkaraatu sib ashab nee na sang nga boyal ko ci àq yàlla dañ koo sib man xaw ma di luñ ci wute sang ko yow problème ne wax ko ci yàlla dañ ko dañ ko sib ñi ci mbindeef moo ñu ne boo xamee alif rek la mën nañ ko wax ci lu dul mbindeef sang-sang rek la dégg fay di ñaan yàlla naan ko bi yaa naa ne yow mi xewale man am nañu ne sib gi sib ak tere la sax yaa sayidi yaa mën naanu wala mu sarix leerul ibnu rusdi ibnu rusdi fil bayaani ci leeral bi xam laa ci yéen ko alal mani ci aaye ibnu rusdi moom waxu ne dañ ko dañ ko aaye moom daf ne sib rek waxaala woon fi shariha ba mu shariha loolu ne wa ama doon waaye ñaan bi yaa mën naanu ci yow yaa mën naanu falaa karaata fii sibuñ ko sama far kon moom wax asab googu sib googu am na dañ ko xenu ci dañ ko yéege ci xaram waaye moom yéegewul ko foofu moom laa noonu ndax moom yaa mën naanu min asmaillahi taala mu bokk si tur yàlla yu kawe alqaayima yet taxaw min alquran ci alquran يلا كي من نال تدو ما كوخر بوم تيال القرآن قال وان الله يلا سبحانه تدو مسنا وتعالى كوان ولكن الله ويلا يمنو درق ولل هلا ما نشاء كون يعمل باريس جامي كون غني يام من نال دار نكوسين ولا يمنو رشد وخ والخلاف ووتي غنك فم نك في تلاقي موي بوي القرآن الله تيال تعالى كوان خم القرآن دفن يمنو درق ولل يمنو كي يام من نال إسك يلا بو القرآن يم ملوم سخال تيال يوم نقول افتور ديكو يلا فولو تيجي moo tax man wutee gi ci boyal baat boobu ci yàlla yéen ba nii dana tabaxu xalal xilaaf ci wutee fi asmaillahi ci tur yàlla taala yu kawe yi ak daalatu yi teg talal sifaat ci melo maanaam tur yàlla yi nga xam ne melo lay teg xal hiya ndax moom tawqifiya dañ ci taxaw rek na ko yonentu waxee rek ñu waxee ko noonu falaa yutlaqu duñ booyal ala yi ci tur yàlla illaa maa warada lu mooy loo xam ne rod na alis nu ndigal fii ci moom am laa wala déet lépp loo xam melo yàlla rek mën ko xooyee muy turam maanaam yàlla boo gisee lii comme yamunu yàlla dafay xéwalal comme xéwalal melam melom la mën ngaa wax yaa mën naan yow miy xéwalal wala déedéet balaa ngaa mën a wax yaa mën naan foo yonantu wax ko foofu la wutee gi nekk mm-hmm. kon loolu moo waral ñu wutee si sayit wala waaye ku ne xam na ne que yàlla mooy kaamilul moxtaaj moom kay moo moo gën a mën ñëpp wutee wuñ ci sayit melo yàlla la wala déet waaye ñu ngi wutee ci ndax am nga duraa naan ko yow sama sang yaa sayit wala déet di ko booyal baatu sayid nga booyal ko ci yàlla wala déet mm-hmm. wutee gi ci wutee ci mbindeef it xëy na lim nekk meloom yàlla ndax ki mat ñu soxla ko kooku moom yàlla rek la mm-hmm. xëy na moo tax ñeneen ñu ko aaye aaye ko waaye man mm-hmm. gis na yonent bi wax ko saadu ñoo na ci alquran wa sayidan wa xasuuran xaw ma kon xaw ma kon luñ ci wutee <laughs> dégguma daal wutee boobu man jaaxal na ma وملخصه ما في المسألة لن تنك في مسألة مي ما أن اللفظ نبات بإما بين أن يدل متكتل على صفة كمال في ملو مات أم لا ولدت بار بني هو يالا ليلين منا تكتل ملو مات ولدت فلم يدل متكتل على صفة كمال في ملو مات لم يجوز دقون إطلاق إطلاق بوار قال الله شير تعالى كوان بار بوخم تكتل ملو مات موم كين يموكو هو يالا دير لهم دقون دقون دول دبورنشي إلا أن يرد لهم مرد بيسمو أشارو شريعة قلت لهم وارك lu may sharia rot ci bar bo xam ne nii mat nan la koy sharia di wooye yàlla yonent bi kay lu mu wooye yàlla rek da nga xam ne dafa tegtala mat yow kay yaa déggul maanaam wér bu fekkee da nga jàpp ne matut kon baat boo xam ne tegtalul mat hmm, tegtalul ak mat ak yàlla du dagan ñu booyal ko ci yàlla lu may sharia rot ci moom jërutu wax ndax loolu sharia mënu ko indi fa yuqtasuru danañ gàttal na laa zikri ci tudd ko film waa ci barab yi nga xam ne war a na fiya ci mom dégg nee na baat boo xam ni tegtalewut ak mat ci yàlla barab yi ko yonentu tudd rek lañ ko ñemee la si yonentu tudd rek lañ ci war a wax lu mu tudd ko wax yonentu lu mu tudd ci yàlla mat la bépp baat bu mu wooyee yàlla rek mat yonentu du manqué ak yàlla xam nga loolu mu ci jublu wen dala nem tegtale laa sifati kamaalin ci melo mat bu dee baat bi melo mat la fen war a dinaam roon na charon charia bii ji moom jaasa daga ne itlaaqu boole ko àlla yàlla taala ci kaw mu kawe mi yàlla taala mu kawe mi fil mawdi lazi ci barab bi nga ne war a na fii ci moom foo fi xëyri bu mu rotut nee na bu dee melo wii melo yàlla la te melo mat la yàlla askan askan nañ ko te melo mat la melo wi askan nañ ko yàlla te melo mat la nee na dagan na ñu booyal ko ci yàlla na ko yonentu waxe bu ko yonentu wooyewu noonu dagan na kon su boobaa yaa naan ak yaa seydi dafay dagan wala mu yërit namratul bii ci moom bu dee sharia andiwu ko fa mazhabu cheikh ah, déedéet maa ngi jum sax waaw moo ne moom bu dee sharia andi na ko dagan na nga waxee ko noonu waaw kon boobu yaa mën naa nag yaa yooyu dafay taxawaale ci point boobu ba léegi wala mu yërit namratul moom sharia bii ci moom fa mazhabu cheikh abil hasan al ashari yi ngërëm abu hasan al ashari yi wa amatu ahli sunna ak mboolem ñooñ na andoone moom laa laa justu dagan an yu sammaa ñu tuddee yàlla yàlla taala kawane illaa bi ma samma lu mooy loo xam ne tuddee na bii ci moom nafsu boppam wu aw ajmaat wala mu dëppoo ummatu xeetu xale ci moom même melo yi melaw mat la amoo duraa xotti si tur di ko askane ci yàlla lu mooy yonent bi jottali la ko ne lii tur yàlla wala yàlla tuddee ko boppam ci alquran wala ci làmmañ yonentam wala xeet bi yëpp dëppoo ne lii tur yàlla la bu dul loolu moo yow fent benn kii rek ne lii tur yàlla la parce que meloom la يوم قتل كسبو برجن يجي تقول لنا إنه أمو درا دفك دولا لم لم ينجرم أبو آه، حسن الرشاري كي أنا قيد الرشاري ما يجي مم لجسانو أجمر مأبش مي جاب سنير نجوم قال وانا القمولي قمولي من الشافع الشافع كقديم نانا نكي باتو قديم أجي جيتو واجب الوجود أكي ورهم دعم لاي تورلا يا خمني توريال يا خمني ردنا وذهب مريم القاضي أتكر أبو بكر الباقلاني والمعتزلة المعتزلة نأنون من يجوز دعان أن يسمى أن يتدي على يالا بكل اسم من سبب كل صحابيرنا معنا ومعنا معتزلة يوم دعان يتوري إيه يالا بيب تروا خلي معنا مباحنا من نكوت تدي يالا إيه أه؟ أبو بكر الباقلاني مميدون لوحد wala mu yem naa terewul acharu sharia wala ijmaaw du jaageen dëppoo minu ci moom bépp tur woo xam ne sharia aayawut ko xeet wi dëppoo bu lii du tur yàlla bu maanaa bi wéree rek mën nañ ko tuddee yàlla wa zahaba dem na al-Ghazali imam Ghazali yaa andoo ne moom yooyu naa daga itlaaqu zalika ci melo si yoonu melal la ala sabili tasmir di si yoonu tudd tuddee mm-hmm. bu fekkee melo yi melo yàlla mën nga ko xottee tur wane ne lii melob yàlla la mais nam moo si ne turam la loolu moom imaam Ghazali wax leer na hmm? danga ko danga mën nga ci defar tur yaa sayidi pour wane na meloom la waaye nam moo ci ne da nga xotti loolu pour wutal ko pour wutal ko tur yaa ngi comprendre kon fal asmaaw tur yi indoo fa yàlla tawqifiyatu moom kajug taxaw la maanaam na ko yonentu waxee yàlla waxee ko noonu lañ koy waxee wala awsaaf melo yi nag laa nihaayata laa amul fu mu yem kon nu neex nga nga waxee ko li gën a dal mooy tur moom balaa nga wutal yàlla na wóor na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wutal na ko ko dégg nga waaye dégg nga hmm. xam nga yàlla ku njëkkale waajibu jooju ko war a am la yooyu yëpp ay meram la hmm. ndax dana dagan na jàppee ko comme tur wala jàppee ko comme melo wutee nañ ci imaam Gazaali nee na man dagan na nga jàppee ko comme melo mais doo ko doo ko jàppee comme tur ndax mel yi amul fu mu yem tur yi nag moom nañ ko gisee noonu koy waxee kon daal tur yàlla balaa nga ko wooyee comme turam xaaral ba am ci dalil rek moo gën a wóor qaala woon alxamuli xamuli ne haada li huwa zaahiru mooy lu feeñ nee na li imaam Gazaali wax mooy lu feeñ mën nga ko jàppee mel waaye bu ko jàppee tur qaala mu ne waxtalafa wuti naa loolu maa borom xam-xam yi fii itlaaq ismin ci booyal tur alay ci moom taala kawe na bi xëy arab ci lu dul arab comme ñun li ñuy def yow yàlla yàlla nga may nangam ndax yàlla ya mën nañ ko wooye yàlla wala mënuñ ko wooye yàlla fa mën a woo tere na ko xaw ma aw nit kon ñun ñëpp te ñu bëgg a dee ñun mooy yow yàlla rek la ñu fekkee am na ñu ne déedéet yàlla kenn du ko wooye ci lu dul tur arab yow yàlla tuddut yàlla yàlla yow sa làng yow jë tuddut tuddut jë mu ko waxe tuddut noonu dégg may mooy góot dañu wax allah hmm. waaw ñooñ sa ñooñ tane kon hmm? dégg nga <laughs> ñu dañoo tengal affaire bi waaye yàlla du olof du dara dégg nga yow kay yàlla nga mën wax kay boo ne yàlla kay yàlla xam na ne moom nga wax leen asmaa ndax turi tawqifiyatun ke jug la ke taxaw la maam da taxaw ni ko yonentu waxee nga waxee ko yonentu mosu wax yàlla mm-hmm. kon yàlla dañ ko dafa xaram dañ ko xaye waaye yow na moo ne yàlla yàlla tur la woo xam ne nii ci tur yàlla yi ñuy jaamoo yàlla sa baat yàlla googu na moo si loolu na moo si ne tur la wu yonent bi askane yàlla wala tur bu yàlla mais yow dangay nga woo koo xam ne nii tur woowu daf koy juñu rek mm-hmm. comprendre teewul am nañu ko ay rek ndax wala mu yëre rotu charon charin bi daal di ci tur ajam charin mosu andi tur ajam naan yàlla wala nangam ak yooyu mooy sa araada bu bëggee al ajam yi këju ko ajam moo ko koo xam ne du arab bu bëggee adduwaa ñaan samaana tudd allah yàlla bismi ci turam bi lisaani lisaani arab bi ci làmmiñu arab kon waxal yaa allah may ma nangam may ma moom dara nekku ci mais yàlla boo koy xoo ko ci turam hmm. loo koy xooyee ci yàlla ko loo yàlla <laughs> waaw mais lii gàggante la tamit maanaam pour nga génn ci wuute bi boo bëggee ñaan yàlla nekk fa naan yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla waxal rek yaa allah mais ma nangam hmm? gàggante la am na solo dégg nga su ma yeskuru toog mu tudd xaajatoo aajom bi luxati ci làngam waxal allah may ma nangam waaye nag lii may bëgg wax moom andi na andi mu ne wa zahaba dem na qawmun aw nit ila jawaasi jëm ci daganal am na ñu ne déedéet dagan na nga wax nga woo yàlla ci langue boo mën boobu loolu madhabul fuqaha yi mooy ngiram borom xam-xamu fiq yi ñoom loolu lañ jàpp dagan na waxaala wax na qabla woo njëkk ko xëy na xamu li moo wax njëkk li ne xad yaxtalifu léeg-léeg mu wute alxaalu mbir mi fil itlaaq ci booyal bi ixtilaafil azmina ci wuuteeg jamono yi maanaam ndax ñëw rek ne yàlla dana daganam du dagan nee na léeg-léeg nga ne dana dagan mais léeg-léeg du dagan sànni baa si jamono yi xëy na bu fekkee kii di wax yàlla moom jubluwu si ne lii tur yàlla boo xam nii mën nañ koo jaamu yàlla mën nañ koo nàngam ah, nga xam ne boo bindoon yàlla sax boo bindoon yàlla sax ah, mu jàppee ko comme tur yàlla xorma bi mu jot su fekkee loolu amul moom mm. garaawut su fekkee dem nañ ba nga xam ni nan nañoo jàpp ne lii tur yàlla la su boobaa xam nga ñu ngi bëgg a wutal yàlla tur woo xam ne nekkul taw jërewuñ ko charia jërewuñ ko fenn ñoo ko créé seen bopp mën nañ ko tuddee sa ba tuddee ko lu bon moo tax loolu dagan comme ni ñun tuddee yonent bi raay na te li ñu waroon wax mooy umzur na seetal suñ mbir bu yàlla tur wu la neex nga tuddee ko kon làng bañ ko wooyee dañu xool làng boobu tur woowu niñ ko farañ fàncee bu dee jamono dafa ñëw ñu wutal yàlla tur woo xam ne dañoo jàpp ne lii turam la wuñ woo xam ne ni sharia jóge jógee maanaam turam la comme turi Allah loolu dañ koy aaye bu fekkee da nga jàpp nit ne da ko wutal tur woo xam ne dëgg la da koy xooyee nii rek waaye tur bi dafa ñàng dafa dafa salte cosaan li boo ko xoolee ab shirkum ci biir loolu dañ koy aaye moo tax mu ne wutee nañ maanaam léeg-léegi mbir mi dana wuté ci wax ña woowe yàlla ci beneen tur dagan naam daganu léeg-léeg day wutee ci kem jamono yi ak ak ak ak ña nekk ci jamono jooju lañ namm ci wax jooju mais tur bi tur bi ñaawal rek bàyyi kama fi xawli Moussa lii moom dëpp wut ak jote wut ak ñaan ci beneen langue dara dafay joxe exemple rek kama fi xawli Moussa ni ki ni mu nekkee ci wax Moussa alayhi salaam yàlla na in hiya Moussa na in hiya déet lii illaa fitnatuka lu mooy sa fitna dégg nga mooy gaa yi jaamu gi jaamu xiram gannaaw ko Moussa def na ko fitna la rek sa fitna la boo xam da mhm. léegi nag ñoom dañ ne in hiya illaa fitnatuka dégg nga maanaam parfois xëy na mun naa mucc parfois hmm, am yoo xam ne fitna lay doon ci xeet wi mhm. ci ab jamono am na jamono joo xam ni suñuy woowee benn baat yi ci tur yàlla mën na andi shirk mais nan nag mu xëy nag mu ci wax ne ko am na am nañ dara wax ko ci jamono ji amuñ que lu rot ci moom pour jamono yëpp la li mm-hmm. nga xamee ne am na jamono yoo xam ni yàlla fitnaal na nitu Moussa yi suñu dugal si seen mbir loo xam ne bokku si di jaamu xiram am na jamono yoo xam ne yàlla mën na leen fitnaal ba ñu xooyee yàlla tur yoo xam ni jaaduwut su boobaa du فين هذا لابس نجا بعد بي لم يكن نكر إذا كجمن بوبو مهما دي دفلو شيء أن درا فارلكو مبوالكو موسى موسى عليه السلام ويجوز دكان أن يخاطب أن يوحق الله يعلم بمثل هذا الخطاب شلو من الوحدي في وقت ناس يوحى هذا بي لما في انجليزي نك من ايهام كي دفلو ممنا لين واخر في ملني يال جمانو جي موسى دي واخا يال ان هي الا فتنه تك بار بو موتن بن بروبليم مي جمانو يي بون يال ليز فتنه لا يمن يال دا فتنه déedéet mais loo xam ne root na ci alquran pour jamono yëpp la in hiya fitna lu ko tekkun tekkun ne yàlla dafa am fitna mais maandu yàlla lay tekk rek yàlla moom moo maandu rek fitna daanu suñ kaw yàlla fitna mm-hmm. nekkul moom ci moom dafa am fitna wala dafay fitnaan nit ñi dafa maandu rek seetaan la bu la nga dugg ci fitna mm-hmm. loolu la bëgg wax rek waaye nag ba léegi saaru baat yu mel nii bu fekkee boo ko waxee mën naa xaw a jaxase nit ñi bañ dugg ci sirku bokkaale yàlla wala fitna soo ba sans ribaar mel ni moytu ko dafay am moo tax na li ma la waxoon mooy baat bu fekkee ña woo ngee woo yàlla tur bi ngay kii tur woowu làmboo naag dara ci bokkaale yàlla wala mu nekk turu suufee wooyee ko yàlla du dagan moo yàlla waroon ngaa xam baatu yàlla fu mu jugee ci olof maanaam langue bu nekk lañuy ñuy wooyee yàlla war ngaa xam fu mu jugee ci seen langue woowu ak lan lay firi ci dëgg-dëgg. que langue yi léeg-léegi daa am lu ñuy wax bu dee langue bi lim muy firi baaxut su baat bi li muy firi baaxut su nga moytu ko mhm. loolu la bëgg wax bu dee amul problème nag baax na kon daal li gën daal mooy boo ñaan yàlla waxal yaa allah intaha jeex na wa qaala woon al abiyu fi shari muslim ci shara muslim maa yu saamoon la ñuy jëfandikoo min lafzin mawla ci baatu kilifa wa sayid ak sang yaa nii la mas namu fi salaatu julli ala nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu rafet la julli ci yonent bi ko wax Mawlaana wala Seydina naa yi nee na lu rafet la way lam yarit di la rotu ci sunna Seydina rotut ci sunna nga julli ci yonent wax Seyd wala yu demee noonu waaye nee na rafet na wal mustanadu wéeduwaay wa xawlu mooy wax yonent bi ne ana man Seydu wala di aadama maay sangu doomu aadama ndax yonent bi war nañoo wax Seydu ci moom de mu ne waaw war nañ ci wax sàkku na ibnu abdusalaam ibnu abdusalaam taadiba man qaala yar ki wax ne laa yaquluwaa du ko wax fi salaat si julli ko ko ku wax ne baatu seydi booy julli booy julli si yonent bi ku wax ne baatu seydi boo julli si bi doo ko wax nee na ko yar loolu ibnu abdusalaam wax mhm. ay laa yaquluwaa du ko wax fi salaat si julli si yonent bi wayen qaalaha dila wax nako ko bi talabin dégg nga si saku, denga, nga maanaam xëy na denga, buy ñaan dégg nga dégg nga buy julli si yonent bi du wax euh sayyid da na rosut wala yi demee noonu nañ ko yar dila buy ñaan wala muy wut dara dana ko wax fa taxa fa tuxu yi ba xanaa la war a nekk de dañ ko nëbbu xataa chafan wala bu xataa suuf chafan ba yonent bi ramb fii ci moom waqaara mu ne waqaara dafa mel moom raa gis na taxayubu ak ak nëbbu ko tilkal muddati boobu la diir xuqubatoo muy mbugalam dégg nga wala boog wayn xaala ne wax na ko bi talabin sàkku fa tuxu yi ba nañ ko nëbbu xataa chafan ba mu ramb fii ci moom maanaam bu fekkee bañ ngaa julli ci yonent bi di wax sëydi boo doon sàkku ci kenn dara wala ci demee noonu di wax sëydi moom na na la woon gannaaw na la gannaaw rek dégg nga ba am lu la xettali maanaam wan gannaaw googu def koo def pour mbugal la ci yow bañ gi nga bañ a wax yonent bi sëydi di ko wax keneen amaana noonu la wax ne wax na ko ci sàkku leneen wax la ko yow na na waajooju nëbbu xataa chauffeur bañ rambu fii ci waa jooju mm-hmm. dégg nga maanaam ba tax ëllëg du defati lu mel noonu pour mbugalee ko ko wala boog nañ ko yar yar gi mooy lan mm-hmm. nañ ko denc rek ba waxtu génne jot ko ñu génnee ko ndax yaree ko ko mm-hmm. parce que yar moom lu ne mën na cee nekk mm, lu na maanaa yooyu yëpp laa alam yàlla rek xam وذكرت البرزيلي برزيلي كان ابن عبد السلام نين دال كو باني واخ سيد سي جولي سي يونتي بي نانكو يار ديو برزيلي تودنا يعني ان بعد ام جيري سي نين سي بروم خم خم انوني مو ان كرويد ان يقول هاني واخ يعني لفظ السيد بارو سيد احد كان ان يقول موك احد كان برزيلي نين امنا بكين سي بروم خم خم نين سيد كان وركو واخ سي يونتي بي suma qaala mu ne waxaa in sax na wér naan wu jëlee jugee ci kooku noonu xaayatu jaali lii mooy doyab réer yonent war ñoo julli si man di wax sayid mooy doyab réer qaala mu ne waxtaataat na suyuqnaa cheikhu suyuqnaa suñ sëriñu sëriñ almajdu luxawi ki nga xam ne almajdu luxawi lañ ko doon tàggantale teranga al luxawi kii kajug luxa saahibul xaamus borom xaamus nee na tarku zaalika bàyyi loolu fi siraat si julli ittibaan ngir Euh, euh, baatu xadis bi wala si yaan ak dikkee bi ci moom feexee salaat ci lu julli dégg nga euh, loo nee na loolu moom moo gën maanaam ta nga bàyyi loolu xanaa booy julli julli gii moom xanaa booy julli farata lañ si namm booy julli julli farata nga bañ a wax sayd nga wax rek na nam rotee parce que salaat Ibrahima gisoo fa sayd bu fekkee julli woo nag boo julli si yonent bi nga wax sayd moom nee na borom xaamus loolu la wax. وذكرتنا الحافظ السخاوي في آخر باب الأول في مجد بنت جك من قول البدين في تير بن يتري قول البدين كلامه وحجيني تدنا وخاموس وذكر متدان ابن مفلي شي وخ شي ابن مفلي عن بري نحو ذلك المل نور موي جولي بولك واخ بودو جولي nga wax ko وذكر شيخ سي سيرن معز الدين بن عبد السلام ان الجامع ديكي بيات موم في صلاه سي جولي يم بني دال تبخ الخلاف في ووتي ابن عبد السلام نينا ابن عبد السلام موم فونكو ريرنتي مو واخني كو باني وقت séesi nañ ko yar nañ ko yar soo amee soxla ci yow it ko nëbbu ibnu abdou salaam nee na wutee gi dana tabaxu xalil awla ndax li gën a yee imtisaalu amri mooy sopp topp ndigal aw suluku adab wala soobu yar xultu ma ne wala ji li nga xam ne yéen dana feeñ lii ñeen moom bu koy def fistiraat si julli wa xëy ak lu dul julli al ityaanu muy indi bi lafz sayid si baatu sayid moom mu ne moom julleeg lu dul julli yëpp damay wax sayid dégg nga kulti gi mën moo ko indi wala boog borom taalifkat bi li gën a yey ci julleeg lu dul yëpp moo wax sayid rek ibn abdou daf ne wutee gi mooy topp ndigal moo gën a yee wala boog am teggin moo gën a yee bu dee topp ndigal moom julli si yonent bi te wax sayid bu dee am teggin nag moom waxal sayid imaam ali nag yonent bi sant na ko mu faar muhammad rasulullah moom mu bañ koo faar ndax teggin te yonent wax ko dara <clears throat> ala sayidna muhammadin kon ndax war nañoo wax sayidee waruñ koo wax wutee nañ ci yow jàppal ne war nañ ko wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaqi mën nañ ko koo wax loolu mooy wax ji yàlla nag ndax mën nañ ko wooye tur woo xam ne meloom la boo tëggee tur bi ngir melo dagan dagan na bu dee na ngir tur la li gën mooy nga bàyyi ko di la wutee nañ ci mm-hmm. wa muhammad muhammad alamun alam la man qulun buñ toxal min ismu maf'ul ci jógee ci ismu maf'ul al mudaaf buñ ful wa maanaa wa maanaa wa maanaa muhammad luxatan ci luxa mm-hmm. man kasra mooy ku koo ne bëri na mahamidu ay cantam woo moom ab loxo moo a jotal min ci mahmud mahmud mooy kuñ sant mm-hmm. muhammad mooy kuñ sant sant ku bëri laa noo nax mahmud min sulaasi sulaasi la ñetti baat la mu jugee si xamida gi fii sant na dégg nga muhammad nag mu jugee si xamada ay aksara alhamda bëril na sant muhammad nag mooy ku sant sant gu bëri alhama yenk na allah yàlla taala kawe na ahla nabina mbokki suñu yonent bi muhammadin muhammad sallallahu alayhi wa sallam tasmetoo ñu tuddee ko bi daalika si tur woowu liyu taaweexa ngir mu dëppoog ismoo turam sifatoo meram yàlla yenk wal na mbokki yonent bi ñu tuddee ko tur woowu ndax lan ndax turóom dëpp ak meloom turam dëppoog melawam laanoo ndax moom yonent bi mahmudun kuñ sant la fi samaay ci asamaan walaade ak suuf kon mm, dégg nga <laughs> tur woo rek lañ ko wa a tuddee waqila wax nañ li jëddi yi ñeen maamam lamma sama bu mu ko tuddee bi daalika ci tur di muhammad ñu wax maamam ne ko li ma àddal te tax nga jéngaan asmaa bàyyi ka bàyyi sa turu bàyyi di ko tuddee Muhammad fa xaala mu wax moom maam jooju di mu Mutalib ne li yekkoon ngir mu nekk mahmudan di kuñ sant fi samaay ci asamaan wala ak suuf fa kaana ci bi nekk kazalika comme noonu foofu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ajallu man hamida moo gën a màgg ci képp ku sant yàlla wa afdalu man hamida moo gën ci képp kuñ sant al awalu bu njëkk bi bi fatiha da ngay fataha gi xamida wasaani bu ñaareel bi dammiha nga dàmm ko maanaam képp ku sant yàlla yonentoo la gën a màgg waaye képp kuñ sant yonentoo la gën a màgg woo moom ahmadul hamidina moo gën moo dàq sant way sant yi wa ahmadul mahmudina mahmudina yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo dàq sant moo moo gën a yeeyoo ci képp ku ñu sant moo gën a yeeyoo sant ci képp ku sant moo gën a moo dàq sant képp kuy sant dégg nga képp ku ñuy sant yonent bi lañu war gën a sant mooy ahmadul mahmudina képp kuy sant yonent bi la ko sant yàlla mooy ahmadul hamidina wa maa wa an nag moom li waawul hamdi dara pour sant yàlla yowma qiyamati moo ko yëkkati waaye bansu dana ko eh, eh, eh, dekkil rabbu borom hunaaka foofu jox ko maqaaman maqaaman mahmudan buñ sant yahmadu dana ko sant fii ci moom al awaluna xeetu njëkk yi wal axiruun ak ñu mujj yowmal qiyaamati yàlla dana ko jox xam ne nii ñu njëkk ña ñu mujj ñëpp danañ ko ci gërëm dégg nga wa yaftaxu yàlla dana ubbi alay ci yonent bi bi mahamida ci ay sant yàlla lam yaftax ubbi ubbi ci moom la ahadin ci kenn qablu njëkk ko yonent bi yowmal qiyaamati yàlla dana ko may fatu ubbeeku mu mën a sant yàlla xeeti sant yàlla yoo xam ne nii kenn mësul ko am ba na sosoo ba ni muy jeexee mm. sallallahu alayhi wa sallam kon fatu du ñàkk du jeex ba mukk hatta àllaaxira sax yonent bi yàlla dana ko may fatu mu mën a sant yàlla sant yàlla gu bees fatu mooy yàlla ubbi la dara ci xam-xam wala ci ci ay yëg-yëg ak wilaayat ak yooyu bu ummatoo xeetam alhamdulilah ñooy sant kat yi yaxmaduna laa dañuy sant yàlla ala saraay ci mbégte wa daraay ak lor wa salaatu julleem wa salaatu ummati ak julli xeetam muftatahatun lu ñu hubbeele bi alhamdi sant yàlla alhamdulilahi la ñuy commencé seen julli wa kazalik naka noonu xutabo xutbaam wa xutubum ak seen xutba wa masaifum ak seen i téere yëpp alhamdulilahi lay lay commencé kon loolu moo di turu Muhammad wala arab xam nga waxoon na Seydi arab baat yi ma waxoon lay firi nii wala arab arab bi fati aynin si fata aynin gi wa raay ak raay wa bi damm aynin ak la mel naa si ni ñi arab dégg nga mën ngaa fata ayn gi muy arab ak raa gi wala nga damm ayn gi sukun raa gi muy orbu mooy fi ab xeet ci nit ñi rek wowum ñoom mane te kalamu moo ñuy wax bi luxata arabe ci langue arab wala arabu arab minum ci arabe nak sukanul bade baade moo ñu dëkkee ci àll ba arab yi mooy sàmm ya ñu dëkkee ci àll ba wala ajam ajam bi fatil ayn ci fata ayn gi wal jim ak jim wa bi dammil ayn ak ci damm ayn gi wa sukunu jim ak sukun jim gi al ajam ak al al al ujmu yeb mën naam am wow moom xilaafu arab wowum ñoom xilaafu arab mooy kudul arab kudul arab ak ajam nga ngoo jus naa dagan ñu ma ñu boole bayna arab diggante arab wala ajam ak ajam bi fatil ahadima ci fata ahada benn ci ñoom ñaar wa bi dammil aaxari ak ci dammu bu ñaareel ba dégg nga arab ak ajam maanaam arab ak ajam mën nañ leen def jamu jamu moo def leen ñu bëri ay arab ak ay ajam ci fasaa benn bi damm beneen ba muy alxurub ak alxujum wala af sawu lu gën a an yuftaxa moo ñu leen maan mboolem seen dégg aw yu wala ñu dàmm leen maan mboolem seen al arab ak ajam rek wala al urub al ajum wal mabuusu kiñ yónni al mursal mooy kuñ yónni wa saayir ummi ummi mboolem xeeti xam nga waa ji tudd na saayir ummi ci yàqu xalil bi moom lay firi jami moom mooy firi mboolem xeet bi rek xaala wax na fi siyaay siyaa saayiru naasi mboolem nit ñi mooy jami moom mboolem nit ñi waan karoo wedd na ko al xariri xariri ne saayiru firiwul mboolem wa xaala mu ne saayiru mooy afiri al baaqi ñi des waru da tontu nañ ale ci moom bi àndoon ne am ba am suma dégg nañ suma dégg nañ saayiru ay dem ba tey fil jamee ci mboolem seen dañuy wax saayiru naas na mu ci mboolem nit ñi mm. comme ni ñuy waxee saayiru naas na ci baaqi naas ñi des ci nit ñi waaye suuf dana wér aneko mu nekk saayiru saayiru fii kalaamil musannif fi ci waxi taalifkat bi bi maanaal baaqi di yore maanaa ñi des ay baqiyatul umami ñi des ci xeet bi maanaam ñi des ci xeet yonent bi mm-hmm. hmm, yàlla yàlla julli ci ñoom jumo jamo ummatin moy jamo umma gi fi xet bi damel hamza di ci dam hamza yutlaqu dañ ko boy ala samani ala samani te maani ci juróom-ñetti maana umam jamo ummatun fi firi juróom-ñetti maana halal jamaati fi firi mbolo hatta min ghayri natiqi ba ci mbolo mo xamni ni ñu tuddu sax comme picci ka xawli ni ki wax yàlla ummatun ab xeet min naa si ñi maanaam ummatun am mbooloo min naa si ñi kon ummatun dañ fi firi mbooloo wa qawlu taala wax yàlla ci picc ne illaa umumun ay mbooloo lañ am saalakum comme yéen foofu umum mbooloo lay firi muy muy mbooloom picc kon mbooloo rek lay firi moo xam mbooloo mu am xel wala mu wala mu amul xel wala atbaay wala atbaay rusulim moom dana firi ñu top yonenti kama yaqulun kum ni ñu waxe naax nañu min ummati muhammad ñu bok bokk si ñuy muhammad sallallahu alayhi wa sallam danay firi ñu topp waala rajuli danay firi al jami ku bolal lil khair ñeel hiw gor go xamne ne yeb dafa dajé ci mom dana ngi wax umma ka xawli ni ko wax yàlla in ibrahim nak ibrahim ka nek na ummatan di dajale mbolam hiw وعلى الدين اذا نكون في الدين والملة اكيون كقولي نكي وخي وخي آه، آه، دنگا يلا آه، جيمنا تلي اي اي نيت ني وخنا ان وجنا فكنا ابانا سن باي على امه تشاب دين ولا على امه تشي يون ولا الحين دني في الجمره وزمان اك جمره <coughs> دنگا كقولي نكي وخم الى امه بس اب جمره ما دوت بن ليم وقولو اك وخم جيمنا وذكر مفاتلو بعد امه غناو اب جمره ولا القامه دني في تخواي نيت يقال لني فلان ديو xasanul ummati ku rafet taxawaay la ay alqaamatu waala rajulun munfaridi danay firi góor gu wéet bi diini ci diineem ka qawli sallallahu alayhi wasallam ni ko wax yonente bu ne yubaasu danañ dekkil zaydu bun amrin zaydu bun amru bun nufayl bun nufayl doomu nufayl ummatan muy nit koo xam ne moom kese moo jàppoon ci diini jooju mm-hmm. dégg nga kon foofu umma muy firi mooy góor gu beroog diineem xam nga moom njëkk lislaam loon dafa dafa dafa doon wéetal yàlla moom mm-hmm. zaydu bun amrin bun nufayl waalal ummi ummatu danay firi yaay yu qaal dañuy wax hada haadihi kii ummatu zeydin mooy yaay zeyd ay ummuhu mooy yaayam mm. qaala wan ala bi abi wa ida udifat bu ñu ummatu umma li nabi ñeel yonente bi salaa sallam fa taatan léeg-léeg yuraat dañ ne mu biyaa ci moom at baamu ñu ko topp léeg-léeg bu waxee umma ci yonente bi mm. léeg-léeg ñu ne mu ci ñu ko topp ka hadis safaatini ka hadis sama ramm li ummati ñeel na sama xeet ma topp wa taatan léeg-léeg yuraat xamumu ahli daawati mat rek ñam war a xoo ñëpp maanaam képp ku mu ku dugg ci wooteem rek bokk nga ci ummaam danañ ko wax jublu ci lool ka ni ka hadis laas moo dégg bii ci man min hasil ummati ci xeet wi yahudi yun yahud wala nasaraan yun du càggeen nasaraan su ma yemut topp mu dee wala mu min tëggamul bi la ci ci li nga xam ne ursiltu yoon nañ ma bii ci moom illaa kaan lu may nekk min asaabi naari si waa safara mm. xamul yahud ak nasaraan ku may dégg mm, dee te gëmut li ma lu may dugg safara foofu moom umma mbooleem xeet bi ñoo si dugg maanaam mbooleem koo xam ne yonentu si yonentu rek dugg nga si umma googu hmm. waaye sama ramul li ummati foofu ñu ko topp la wax ñu ko topp hmm. dégg kon umma danay firi ñu topp yonent bi danay firi xeet wi yëpp mboolem koo xam ne yonentu sa yonentu la xadis bi mu wax rawaaw muslim muslim an na ko wa zaahir li feeñ anal umma ne ummam fii xawlil musannif fii si waxu taalifkat bi li saayiri umma mi ñeel na mboolem xeet yi bi maanaa aljamaa mboolem mbooloo yi yu topp yonent bi wa bi xawli ci waxam wa ummatu um ak xeetam afdalu umum yi gën ci xeet bi maana baa ñi nga xam ne ñoo ko topp ñoo gën ci képp ku mos a topp yonantu fa saqata dana rot maa xiila lu ñu wax ne ina fii kalaam yi nekk nekk ne sorotam tawaafuqul fasilatayn wu dëppoog ñaari e, way fasale yi fi lafzi ci baat wal maana ak maana maanaam daaneel ci wax daane daanewaat ci wax xam nga jeexal ne umma umam hmm? mm-hmm. ba pare tuddaat ko nee na ñaar yoo xam ne ñoo teqale wax ji te ñoom ñëpp doo dëppoo ci baat maana loolu woowu moom maayibun ayib la fi saji si sajo mm-hmm. loolu ayib la si sajo waaye nag boo xoolee li mu waxe benn ummatu gi di firi xeet beneen ummatu gi di firi di firi ñu topp yonent bi mm-hmm. maanaam umma gi di firi mbooloo umma bee di firi ñu topp mm-hmm. su boobaa loolu lañ lañ wax ne ñaari faasile yi wutee maanaam amatut dégg waala ummati ak ci ay xeetam dégg nga euh, ana ana ana ci kii bi ci ci ci kii bi ci ci bi nga hmm? da waxoon ne wal hmm? ma bon si kata kañ yebal li saayir umami li nga foofu umam umam moo foofu maanaam li saayir umami mooy ñu mboolem mboolem mboolem mbooloo yi Mm-hmm. mooy ki yebal jëm ci mbooloo nit ñëpp mm-hmm. kon umam foofu mbooloo lay fi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa azwaji wa zuriyati wa ummati afdalil umami wa ummati ak ñu ko topp afdalil umami mm-hmm. ñi gën ci képp koo xam ne mos naa topp yonent yi xam nga umam ak umam ñoo ñoo teqale wax yi waaye duñu wax ne ñaari umam yi ñoo bokk maanaa te bokk baat loolu ayib la ci sajon sajon mooy ñaari baat yu bokk fu ñu daanee niroo loolu lu ñuy wax ne ayib la parce que bokkuñ maanaam ba umam gu njëkk ki mbooloo mi ñëpp ci dugg moom gu ñaareel gi nag ñu topp yonenti bi rek ci dugg kër ita yi nga xam ne itaa ayib la fi nazmi ci way woo moom takraaru xaafiya mooy baamu xaafiya bi ita mooy nga wax de jeexalee ab baat ci xasida bi gud juróom-ñaari raf nga jeexale waat ko dégg nga dégg nga loolu baaxut dégg nga ayib la ci way ba li fi nekk fii kalaam yi nekk na ci waxu taalif ka minal muhassinaati ci rafetal al badian yi ki ju xam-xamu badi al jinaasu taam dëppoo sëkk waaye si dana wér an yoraadu ñu namm biir umati ci xeet fi saani si bu ñaareel bi ak diinu diine xeetu ñaareel bi dana ci mën a umoogu ñaareel gi mën nañ ci namu diine ala xasaf ay waala ahlu diini ak ci ñooñ diineem afdalul adiyaane yi gën ci diine yi mm-hmm. umoogu ñaareel gi waala ummati yi ak ci ñooñ diineem afdalil umam mi ñi gën ci diine waaye neen wa fii nekk na ci taawil boobu takalufun ak coono jàppee umma ummatun mm, ñu ko topp mm-hmm. bu njëkk bi nga def ko euh, mboolam ñëpp mm-hmm. ndax dañ ko yónni ci ñëpp loolu moom moo gën a leer comme que lu leer am na di jéem a ko beneen taawil boo xam ne dafay aj aju nattale mm-hmm. coono la ko wala immatu imma bi kasar hamza ci kasar hamza an niamatu moy xewal bo ne immatu moy firi xewal way wa tutlaqu dañ ko boole ala diine ci diine wa tariqat ak yoon dañ wax immatu namu ci diine namu ci yoon de nga immatu dañ ko wax namu ci diine namu ci yoon waaye dañ wax immatu namu ci xewal wala khilafu dir wutee fi umumi bi'asati ba'asati ci matar ak yonent bi woote ak bi sallallahu alayhi wasallam ilaa jëmi insi ci mboolem nit wal jinn ak jinne ñëpp dëppoo ne yonent bi yàlla daf ko yónni ci nit ak jinne yëpp li xawli taala ngir wax yàlla jum ko bu ko ju ko jum naan leekoo na ngir mu nekk naziran aji waar li laa lamine ñeen mi ndefi mm-hmm. wax xawli wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bon su yónni nañ ma ilal ahmar jëm ci ku xonq wala aswad ak ku ñuul yàlla daf ne dañ ko yónni ci aalamine yëpp mu waar aalamine yëpp te aalam mooy lu dul yàlla mm-hmm. kon moom si ñëpp la ko yàlla yónni eh, dégg nga eh, at yonent bi nee na yàlla daf ma yónni ci ku xonq ak ku ñuul kon ci ñëpp lañ ko yónnee waqil am na ne al insu waqil am na ñuy wax ne nit wal jinn ak jinne la foofu hmm. waqil wax nañu al arab arabi wala ajab ak añam la namu ci xonq ku ñuul waxtu dafa wutee nañ fi baaxsati ci yónne gi ñu ko yónnee ila malaaka jëm ci malaaka yi ndax yonent bi yàlla yónne ko ci malaaka yam déet wutee nañ ci wala ak sar ñëpp ala adami baaxsati mooy yónnuwuñ ko ci malaaka yi ilayhim jëm ci ñoom ala adami baaxsati ñàkk yónni ilayhim jëm ci ñoom hmm. ñu bëri daal dañ ne yonent bi yàlla yónnuñ ko ci malaaka yi saraxa alxalimi yu xalimi wal bayxaqi ak bayxaqi fil baabi raabi ci buntam ñeenteel min soxbi iman ci xaaji gëm yàlla nee na yonent bi yàlla yónnul ko ci malaaka yi ba li fi nekk xakkaanit na imam razi imam razi wal burhaan an nasafi al ijmaa dëppoo xalaa andoo ne moom lam yursa lam yursal yónnuñ ko moom yonent bi ilayhim ci malaaka yi imam razi nee na ñëpp dëppoo ne ne yonent bi yónnuñ ko ci malaaka yi حالهم مغوا وما حكى لن ينتل كشي كشيو سركزيو وتبعه مطبق القرافي قرافي وغير وغير أقدم من امام رازي جريج إمام رازي من انو نمم هو كانتنا ما دبو على بعض تيجيو نقول إليهم نيوم غير معروف قمنكو xam nga zarkasi zarkasi ak xaraaf ñeneen ñu du ñoom ñoom i nett nañ imam rashi imam razi ngeen imam razi moo ne yonent bi ñëpp dëppoo nañ ne yónn nañ ko ci malaaka yi mm-hmm. ñeneen nettal na yónn nañ ko ci malaaka yi mu ne ah wax ji leer daal mooy lañ jëlee ci imam Razi mooy yónn nañ ko ci malaaka yi mm-hmm. kon kon imam Razi mbiram dara ci mm-hmm. parce que dañ ci mu ne waaye nag yónn nañ ko ci malaaka yi ñëpp dëppoo nañ ci xayru maaruf xamuñ ko ne Razi mu jugee si Razi wal maaruf lañ xamaanu ci moom maa xadam naa mooy lañ jiital mooy yónn nañ ko ci ñëpp wal xawlu wax bi bansati si yónni guñ ko yónni ileem jëm si malaaka yi ina maa xakkaaw neetal na ko asubki an baadim jëlee si ñenn si borom xam-xam yi ñenn si borom xam-xam ñoo ne yonent bi dañ ko ci malaaka yi xaala woon al kamal bun abi sharif kamal bu doomu abu sharif fii xaasiyati si xaasiyaam sharhi jamil jawaame te mooy saraha téere bu ñu tuddee jamul jawaame ne xaala woon asubki subki ne xaala woon al mufassirun firikat yi kullum ñoom ñëpp fi qawli taala ci wax yàlla jum ne nazira muy waar lil alamin ñeel من ده في في نمون شيء ملاك ينتقين لنا نش نمو وقال وانا بارم ينتقي برم كان كمي والملائكة تون أك ملاك أي هم نيجي نيجي ديرت لين عالمين الملاك أي جلنا بوك دينغ سو با أنا كل كي خواجة خس مو نزيرا نزيرا مو مو كوي خوب تما ملاك أي مو خوب مدر أنا خوبه ده يوم دنيا مايا الله بيني أنا خوب كوي كوي مايا الله يني خوب ما تخبرت نزيرا بي نيرو نني ni laa ji waxe moom ni sa ginn la ndax ñooñu la ñuy xupp ndax ñooñu ñooy mooy yàlla alors kulli yàlla daf ko yónni ci ñëpp ndax daf na ko maa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yónni ñu lu may nga yërmaane ñeel mbindeef yëpp dégg nga kon moom yónni nañ ko ci ñëpp loolu alquran a ko wax jeex na Sarkozy yeeg Razi yeeg yooyu yëpp daanaka bul jàpp Furqaan dégg nga almuraad lañ na bii suma alin su mooy nit wal jinne ak jinne dégg nga waqaala wax na baarum ñeen wala malaayka ak malaayka yónni nañ ko ci moom wutee la daal waaye man jàpp naa yónni bi ci ñëpp la ko yàlla yónni ndax xéwalam yegg si na ci ñëpp wa aalu rajuli aalu ñooñu góor aalu mooy njabootam waaye aalu mooy ñooñam waaye yàlla ak njabootam aalu lay firi aalu mu ne aalu rajuli buñ ne aalu nangam mooy aalu ñooñ mbokkam yi waaye yàlla ak njabootam yi wayit loq ko boylaat bàyyi ci ñi ko topp dañuy wax aalu na bi fekk ñi ko topp lañ ci namu ay dan ba tey xaaloo wax na ko mboorum siha fi siha xaala wax na asumun niyu ne walaa yu daafu duñ ko laaf illaa liman lu may koo xam ne la wañeel na ko sharafun teraanga mi ne oqalaay ci borom xel yi azukuri yey góor aalu kuñ ko wax rek aalu nangam kañ laaf aalu gi kooku ku tedd lay doon borom xel lay doon góor lay doon fala yu xaal dañu wax aalu iskaaf yi ñooñ ñooñ daaji kër ga iskaaf dañuy firi bantu kër buntu kër ñooñ buntu kër duñ ko parce que buntu kër amul xel wala alu màkk duñu wax ñooñ màkk parce que màkk amul xel wala alu fatima duñu wax ñooñ fatima parce que fatima jigéen la mhm. ndax alu ci góor lañ ko wax waaye ñun axfas jëlee nañ ci axfas andoom na ñoom xaaloo wax nañ alu basra ñooñ basra wa alu madina ak ñooñ madinatul madina ak basra amuñ xel mhm. kon mën nañ koo laab ci lu am xel wala lu amul xel wutee nañ ci wa saxihu li wér mhm. jawaasu idaafati mooy dagan ak laaf ko ila damir ci damir mën nañ koo laab moom nga ne wa alihi ak kamastamalo comme nu ngi ko jëfandikoo al musannif taarifkat bi wa maanaam tere na sax daaliku al kisaay kisaay wa abu janfar ak abu janfar naxaas te abu janfar naxaas nee na moom aalihi kenn du ko wax aal kenn du ko laaf ci damir waaye nag waaye chadu dana seere lil awali ci wax ci njëkk ji mooy mën nañ koo laaf ci damir xawla abdul mutalib wax abdul mutalib ne wansur dimbale ñu ala ali sali bi ci ñooñ xerem ya ci ñooñ kuraaba wa abidi yi ñoo koy jaamu al yowma tey aalu ko ñooy sa ñooy sa ñooy sa ñooñ mm-hmm. dégg nga xam nga mooy ba Abraha bëggee màbb Kaaba ga dafa doon xettlu ko yàlla mu dimbale ko ci ñooñ Abraha te xam nga ne ñooñu jamono boobu ñoo jàppoon ci islam sax mm-hmm. <laughs> waaw parce que jamono diine sax moo valable woon am ay jaam ay xiram valable toon te màkk fa nekk jël kaaba ga def ci xiram ba fees mm-hmm. abu uh, taalib na moom abdul mutalib ne yàlla yàlla nga ñu dimbali ci waa xiram yooyu waa kuraa yi dégg nga nga xam ni ñooy jaamu noonu al tey aluka ñoo si ñooñ aluka aalu laaf na ko ci kaaf demir mhm. waaye nag wax na sa aalu sëli bi ñooñ kuraaya te ko daa amul xel mhm. hmm? kon aalu mën nañ koo laaf ci lu amul xelam mën nañ ko cee laaf wuute am na ci waaye daanaka tax ko am solo <clears throat> waxtu dafa wute leen fi asli ci ci saanam fa qaala ñu fa qiila ñu ne aalu fu mu jógee ñu ne mu ngi jógee si ahlu gi fii ñooñ mhm. fa ubdila ñu remplace al xaawu xaagi hamza muy ahlu xaagi dañ def am muy ahlu su ma ubdilat ñu remplace alhamdulilah hamsat gi alifan muy alif muy aalu foofu la jógee waqiil am ñu ne aslu ci sànli mooy awalu ku njëkk kuli ban ñu soppi al waaw waaw gi alifan alif muy aalu mhm. li taxarukaa ngir maas ak waaw gi woon fitaay maa qabla ak fataak la ko njëkk wa aalu ñooñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon mu jógee si awalu ñu saase waaw gi aalu kon mu jógee si ahlu ñu saase haa gi amza muy ahlu ñu saase alif muy aalu يبو وخمن كو يلا الحمد لله وقالوا ني نيلنتي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم مو دومي هاشم فقط دونغ لا مسور سي لغنا سيو لي غنا سيو مو ني نيلنتي موي كو هاشم جور وقيل امنا ني سي بوله ني بنو مطلب اك كيب كو مطلب جور مكم هاشم لا وقت هو الذي مولى قال مسا دوخنا عليه اسم المصنف طالب كريم في زكاه تي زكاه اتي وال ازك طالب كريم نينا بنو مطلب سي ال يونتي بلا نبوك مانام خليل لون لا جاب قال وانا ادما مينو دما مينو المختار مولين تاننا فنيون moy banu mutarib ci ñooñu yonent bi la bok shafi ci banu mutarib la bok mom tamit jàpp na ñoo ci ñooñu yonent bi lañ bok wa qaala woon Cheikh Zaruq sa Zaruq ne huwa al madhab moy ngir mi sax moy ne banu mutarib ci ñooñu yonent bi lañ bok dégg kon banu Haashim ak banu mutarib wa qiila woon nañ jamee ummat yi mboolem rek ñu ngi dugg ci al al yonent bi moy njab xeet bi yëpp qaala woon ibnu arabi ibnu arabi fi la arida ci arida wa maala jeng na ilay jëm ci wax jëm ci loolu malikun malik nee na malik lam jàpp mooy aalu nabi mooy xeetu yëpp wa qaala woon abdulhaq abdulhaq fi kitaabi salaat si téere julli asaani waxu ñaareel ba min tahzib yi si seggam fi kalaami ci wax la tasawuri ci taaya dégg nga ba mu wax ci taaya ci tahzib dégg nga wax na waxu ñaareel lu mooy aalu mooy xeetu yëpp rek wa aarifu danaa xam li maalik ñeen maalik rahimahullahu yal na ko yàlla yëram anna aala muhammad ne aala muhammad kullu man tabia diinahu mooy képp ku topp diinam ne lam xam ci muhammad li mu xam ci Malick mooy ne Malick dafa jàpp na ñooñu yonent bi mooy ku topp diine yonent bi kama ana aala firawna comme ni nga xam ne ñooñu firawna ku lu mën tabia mooy képp ku topp firawna waqil am nañu ne aalu li muy firi mooy atqiyaa'ul mu'miniina mooy ragal yàlla wala as ah, waaw jeex na aalu kon wutee nañ ci ndax ñi ragal yàlla la ndax ñi képp ku topp diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam la wala ay mbokkam la wutee nañ ci wala asaabu asaabu yi jamoo saahib mooy jamoo saahib gi firi àndoor bi maanaam asaabiyu ku ànd ak yonent bi asxaab mu jàmm bi la saxaabiyu mooy benn saxaaba hmm. bi yaay nasab da nga ci nasab yaaw askan askan loolu ñu jàng na ko xam nañ ko boobu moom maxsuus lu ñu jagleel la filan fii ci aada bi asxaabi nabi ci ñooñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam boo waxee asxaab ñaanoon ak yonente nam pourtant asxaab mooy ko ànd ku ne rek hmm. wa saxaabiyu saxaaba nag may tabaam mooy ku dajeeg muminam du gëm bi muhammadin ci muhammad sallallahu alayhi wasallam sahaaba mooy ku dajeeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko ko walam yar wi dina jël waanu ci moom walam yetul yàqul ijtimaaw dajee mm, walam yetul te guddut ijtimaaw ak dajeem bii ci moom ku dajeeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam dina jàngewul ci moom dara solowul ci moom dara dajee gisa yàggu diir bu gàtt la sahaaba la wa qaala wax na an-Nawawi imaam Nawawi wa sawaawul moo xam soo toog naag moom am laa wala déet imaam Nawawi nee na saxaaba boobu toog naag yonent bi wala toogut ak moom daje naag moom lu mu gàtt gàtt rek saxaaba la daje naag moom gëm ko daal saxaaba la ku daje yonent bi gëm ko loolu mooy saxaaba haada li huwa mu al asaw mooy li gën a wér ku daje yonent bi lu mu gàtt boo ko gëmee la woo moom mazhabul Buxaari mooy ngiram Buxaari Buxaari loolu la jàpp wasaayiru muhaddisin ak mboolem ñuy waxtaan ci wàllu hadis wa jamaatin ak mboolem mene fuqaay ci borom xam-xam fiq yi mooy saxaaba mooy ku daje bi gàtt na wala gudd na wa xëy ak ñu ñoom loolu lañ jàpp wa zahaba dem na aksaru usul yi ne ñu bëri si waa usul ila anoo ne moom yustaraf dañ sàttaal mu jaal su toog moom ñu bëri si waa xam-xam borom xam-xam usul yi ne dañ ne moom saxaaba foo mu toog ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne wa waa usul yi wax muqtada urfi mooy li aada di sàkku maanaam aada lañ wax diw àndandoor diw la foo mu toog ak moom xanaa ay kii nag wala awalu bu njëkk bi nag muqtadal luxati mooy lu luxa sàkku koo dajeeg moom toogwulee nag sa saaxib la ànd ngeen hmm? man nga jàpp bu njëkk bi sahaaba mooy ku dajeeg yonent bi di la gàtt na waa ibnul musayib jëlee nañ ci ibnul musayib ne laa yuadu duñ ko compté sahabiyan sahaba illa man aqaama lu mooy ku sax maa rasulullah ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam sanatan at aw sanateen wala ñaari at moo jëfeel na ko di ibnul musayib ne sahaba mooy ku nekk yonent bi at wala ñaari at wa xasa mu xeex maa waa ànd ak moom xasawatan xeex aw xasawatan wala ñaari xeex at wala ñaari at ba pare xeex ak moom ànd ak moom xeex fayn sax ne wér na anu jëlee ci ibnul musayib foofu wax jooju daa wax ju lott la nee na bu dee wax ji Ibnu Musayyib moo ko wax it dafa lot fene muqtadaawo luy wax jooju di waral mooy an laa yoxada duñ compter jëriirul bajali jëriirul bajali wa sibi ak ñu niroog moom saxaabatan saxaaba ñooñu duñ leen compter saxaaba kon dégg nga wala xilaafat ak benn borom xam-xam wutewul fii àndoom ci ne ñi saxaabatun saxaaba lañ te sart ba mu ci wax dajewul ci ñoom wa haada li bi xilaafi taabiin wuteeg taabii taabii mooy kan kon saxaaba man ngaa jàpp ne tënk-tënk bi mooy ku dajeeg yonent bi ko ak lu bu dee taabi woo moom saahibu saxaabi mooy ka ànd ak saxaaba mooy taabi falaa yeg fii du doy fi itlaaqi taabi ñu booyalee ko taabi alay si moom ijtimaaw dajeeg bii si saxaaba min xëy tuulin ci lu dul yàgg ala azharil qawlin li gën a feeñ ci ñaari wax yi waqil am na ñu ne yeg fii dana doy am na ñu ne boo dajeeg saxaaba lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt taabi nga mm. am ne déedéet foo nga dajeeg saxaaba lu yàgg mu door nekk taabi loolu nag moo gën a leer moom nañ gën a nangu maanaam wal farqu teq la benn maa seen diggante mu anal ictimaa naka dajeeg bi Moustapha su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fii laxsatin ci benn gendeku yu assiru dafay jiixit fi tanwiiril qalbi ci leeral xol maa la nga xam ne laa yu assiru du ko jiixit ictimaa dajee bi xëy ci kuréel yonente bi moo tax barke am na de dajeeg yonente bi benn gendeku dafay tax sa xol leer waa euh, bokkut ak boo dajee woon ak keneen ku dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doo ci am loolu kon dajeeg yonente bi lu mu gàtt gàtt ma ne laa compter saxaaba nga am ngëneel li mais dajeeg taabi dajeeg saxaaba nag lu gàtt duñ la ci compter taabi mm-hmm. dégg nga lii dajeeg yonent bi du am ci dajeeg keneen wala taala di la dajeeg keneen gi yàgg na sax lii da li ngay am ci dajeeg yonent bi lu mu gàtt gàtt mënoo ko am ci dajeeg keneen di la dajeeg keneen dafa yàgg mm. waaye xul dana dugg fi xawli naa suñu wax ne ijtama dajale na daje naa yonent bi alaamaa gumba bu ne saaba mooy ko dajeeg yonent bi rek xamal ne gumba ci la bokk mm. waa bara firi na baarum ñenn ñi bi man laqee ci ko dajeeg lee du xoole ngir mu dugg man xam na ko koo xam ne yonent bi mm, defal na ko taxnik mooy mooy mooy mooy mooy xol ko xool kon jël tàndarma yooyu ba mu baax rek mu dugalal ko ci gémmiñam xale yi ndawee pour ñu dugg si aw man masoo wala ku yonentu laal ku yonentu laal rek wala mu xoll rek dugg na ci biir maanaam kon sallallahu alayhi wa sallam si xale yi kon xale bu mu wala mu jox la tàndarma rek ci yi nga bokk ndax daje nga ak moom woo wax ji kazaalika naka noonu la maanaam xale mu ko yonentu dajeeg bi mu laal ko wala mu xoolal ko tàndarma wala mu raay bopp bi saxaaba la xilaaf na wuteeg li baaram ñenn ci borom xam-xam ñeen loolu xale boobu du saaba mais nag li a lëng mooy ne xale bu saxaaba la mm-hmm. ndax daje naa yonent bi te gëm na ko ndax xale yi gëm nañ walaa yadxulu dugg anbiyaaw yonent yi alladi ñi nga xam ne ijtama daje na daje nañ ak biim ci ijtama daje na moom yonent bi biim ak ñoom laylata israa ci guddi gën a ñaan gi wala malaayikatu malaaka yi yonent bi malaaka yi mu dajeeg duñ saxaaba mm-hmm. yeneen yonent yi mu dajeeg duñ saxaaba ndax loolu taxut ñuy wax daje kuy dund la wax ak ci ak ci doom aadama yeeg nit ñi ci ñi xam yoon nañ ko ci ñoom na murad ndax liñ la mu aleytimaa mo daje al mutaaraf buñ xam mo daje kuy dund waaye leet xul ndax dund dana dugg fi daara gi ci lolu jinnu nasib bi ne jinney nasib ne nga xam daje nañu yoon tibbi sallallahu alayhi wasallam gëm ko man nañ ci dugg wastas que loolu lënt loonu ko ibnu asir ibnu asir ni affaire bobu lënt na wo mom mahallu nazarim barabu barabu setantal la kon ba fofu manam daf la bàyyi nga gëstu ndax jinn yooyu saxaaba lañ wala duñu saxaaba man jàpp naa ne saxaaba la comme que yàlla daf leen yónni dafa yónni bi ci ñoom ñoom daje nañu moom gëm ko lan moo leen tee nekk saxaaba waaye xul dana génn mais taarif bi ci xamle gi man la xew ko daje yónent bi kaafiran di weddi su ma aslama topp mu jébulu bu dee ba ngay daje moom gëmoo waaye gannaaw ba mu fa jugee nga gëm doo saxaaba xaala wana cheikh xululu ne wa nazara xool na ibnu arafa ibnu arafa fii kaw nii si nekkam saxaab yéen saxaaba ibnu Asar ibnu Arafa ne ak kooku saxaaba la na gëstu maanaam mhm. taxaw na ci dégg nga waaye kooku du saxaaba ndax jamono bi mu dajee foofu moom mënu ci benn nga neen ndax gëmut mhm. wala yëpp tul du yàq taarif xam le ga bi ma ni tadda lii moom doy na waa bi ma ni tadda ci ku murtat baana ictimaa yi gannaaw mu dajeeg bii ci yonent bi wa maata mu dee àlaa riddati ci murtatam laa noonu ndax moom qabla riddati njëkk murtat gi kaana nekkoon nañu sumaa ñu koy tuddee saxaaba yéen saxaaba nee na même bu ñu ko tuddee saaba mu murtat gannaaw ko mu dee ci murtat gi it tax ñu ne du saaba nu mu nekkee saaba ko nu mu nekkee saaba ak xéeféer nu mu nekkee saaba hmm? dégg saaba kay mooy ku gëm kay te murtatut gannaaw ga dégg xëy na boo gisee lu tax mu wax lii mooy dem bëgg wax waa maa ma nit sax da waaye ku murtat su mu aslama topp mu jébbul foofu moom saxaaba bi mu saaba bu murtatee jébbulu ba léegi dafay des ci saxaaba gi mm. parce que tur waa ngi fa tur waa ngi fa bu murtadee gannaaw gi mu ñëwaat jébbalu garaatu saxaaba daf koy des loolu mën naa nekk parce que boo murtatee sa jëf yëpp yàqu na waaye boo tubaatee am na ñu ne yàlla daf lay delluwaat sa jëf yëpp boo jàppee ci wax jooju dafay di nekk saxaaba mm-hmm. amaa bu dee boo murtatee sa jëf yàqu na boo tubaatee sa du ñëwaat kon kon ku nekk sa saxaaba boo murtatee génn nga si saxaaba mm-hmm. sa jëf dafay yàqu ba daay mu diine amaa lii mu wax nag ne ku murtat dee ci murtat gi ba léegi dafay def ci saxaaba yi xadis taskala kooku lënt na dégg nga mm-hmm. la alam yàlla xam wala waa ji soxna yi jamu zawjin mooy jamu zawju gi firi soxna yu laq danañ ko booy laal rajuli ci góor wal maraati ak jigéen wa yuqaal dañ wax fil unsa ci jigéen zawjatun jabar zawjatun moom jabar lay zawjun mën naa firi jabar mën na firi jëkkër mm-hmm. wa fi baali nusux yenn ci kayit yi ziyaadatun yokk wa duriyati ak njabootam xalil am na foo xam ne nii am na ñu si yokk wa zuriyati ak njabootam am na xam ne wa azwaaji ak soxnaam rek waxuñ njabootam wa zuriyatu zuriyatu gi firi njaboot nag a lu mooy doom yàqoo dana tàbbi xal zukuri doomi góor yi wa inaas ak doomi jigéen wa qaala wax na moom borom siyaa fi siyaa sa siyaa ne hoo moom naslu saqalee ni mooy doomi doomi yi muy nit ak jinne ay man zara ak ka na ko allahu yàlla dégg nga ay xalaqum bind na leen dégg nga zuriyatu mooy man dara ahu laaw alxalqa ku yàlla bind muy mindeef ay xalaxoom bind na leen laakin waaye nag tarakat bàyyi al arab yi hamzata hamza gi xam nga zara a ñu bàyyi hamza gi wax zara wa zaxama njort woote na baalum ñeen ñi andoona moom tutlaqu danañ ko booy xala abaay ci bàyyi ay rem ba tey nee na zuriya dañ ko firi ak ay ak ay baayam liñ ko gën a gën a liñ ko gën a miine mooy njabootam Mm-hmm. am na ñu koy firi ay baayam ay dem ba tey wasa dara ñu tegtaloo bi xawlim seen waxtaan laa ko ne wa ayatun kawteef la wum ñeel leen an na xamal naa ne yenu nañ zuriyatum seen i seen i baay yaani nuu mm-hmm. xam nga nuu nuu kii la waaye boo xoolee tamit gaal ga it dem na fa njaboot ga it hmm? dégg que yonent yàlla nuu ngi fa mu jaamu yàlla kii nga jamono boobu moom moo représenté xeet bi kon ñëpp moom moom mën nañ ko def sax jamu zuriyatuhum yaani zuriyatu nuux rek parce que ñoom ñoom njaboot nañ si jamono boobu loolu tekkul bàyyi de allahu mm-hmm. alam yàlla xam yaani nuuxan nuux man maa ak ñaan ak moom wa tusalus su sulusa danañ defal um, ñett daaluha daala maanaam duriyatu diriyatu dariyatu yëpp danañ ko wax wa qura jàng nañ gis ñett yëpp dégg nga wa qiraatul jumhur yi jàng borom ñëpp si borom xam-xam bi damm mooy damm duriyatu dégg nga waaye leen jàng zirriyatu leen jàng zariyatu su ma saa topp julli ala ali si yonent bi waa saaba ak saaba waxee dama ak ñoom te jus naa da la tabiyeet ci topp. Mm-hmm. julli si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ci ñooñam ak dagan na waaye bu fekkee da ngaa julli si yonent bi tofal leen ci ndax julli si saaba yi rek moom dagan na wala daganut wala julli si ku dul dagan na wala daganut ak ndax ñi nga julee ci yonent bi nga julee ko ci keneen ku dul bi dagan na wala daganul mooy masala bi ñu bëgg a leeral xaaral woon fi shifa shifa ne amatu ahlil ilmi ñi ëpp ci borom xam-xam yi muttafiqoon way dëppoo lañ ala jawaaz salaat ci daganal julli ala xayri nabi ci ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg nga ñi ëpp ci borom xam daganal nañ nga julli ci ku dul bi waaye nag gannaaw boo julee ci yonent bi ثم ذكر توب متدو انه من وجد فكنا بخط بعض شيوخ مذهب مالك في بندم بن ينت سيرن غير مالك انه لا يصدق ان يصلي ان يصلي ان يجلي على ادن تي كان من انبياء تشورنتي سوى محمد رسول محمد صلى الله عليه وسلم نانا فكنا كين سيرن غير مي من دغ نيو جولي سي كين تشورنتي كورن يونتي صلى الله عليه وسلم لول كي دنوار من قال وهمنا وهذا لي غير معروف قومكم من مذهب تشي غير مالك ngir Maalik moom nekku ne la muy wax mooy ne yeneen yonent yi daganul nga julli ci yeneen yonent yi dagan nañu julli ci su ma xaal topp mu wax wala si li nga xam ne saxaba dem na ilay jëm si moom al mu xaqiqoon ñooy dëggal wa amiru te danaa jeng ilay jëm si moom ñooy dëggal lañ wax ak man la ma jàpp maa xaaloo mooy la wax na ko maalikun maalik wa sufyaan ak sufyaan waxtaaroo mu tànn ko xeyru waahidin ku dul kenn mel fuqaay ci borom xam-xam yi wala mutakallimina ak ñiy wax ci wàllu mm, xam-xam hadis انا نمو مجيب دانا والتخصيص النبي النبي جغل يونتي صلى الله عليه وسلم وسائر انبياء ان مولم يونتي بسرات سجولي والتسليم اكثر من سيوم بوني حين قد تدو يونتي بجولي سيموم يونتي تكوشي جل تدو من قد جولي سيموم وقت صلى الله عليه وسلم وعلى عليه الصلاة والله ويمنون كما يختصكم نمو جغل الله يعلى سبحانه وتعالى وسلم هنا ذكري بطل يعلى بتقديس سيسر وتنسي اكثر لكو ويزكو درين تدو من سوائم كدو يونتو بالغفران سنجيغل ورداء اجرم كدو يونتو نك mën nga koo ñaanal njéggal ak ngërmaane boo ko tuddee moom kese amma boo tuddee yonent yi mën koo si tot laafaale julliwaale ci ñoom dégg nga hmm. kama qaala allahu taala ni ko yàlla mu koy waxee yaqoon danañ wax rabbanaa yow suñu borom ixfir jégal naa ñeel ñu war ixwaan naag suñ mbokk yi alladina yi nga yi nga xam ne taboom hmm. itaboom topp nañ leen bi asaanin ci a ci yàlla yu mag yi wala yàlla yi mën nañ la ñaanal ngërmaande hmm. ñi nga xam ne ay nit simple lañu woon leen jégalam yàlla waaye waaye dan ba tey foofu moom amul mbir la moo xam ne lam yakun nekkutoon maarufan di luñ xam dégg nga fi sadri awali ci xaaj bu njëkk ba xëy na <laughs> dégg nga julli ci ñoom kese julli ci kudul yonantu kese loolu xamuñu koon si jamono ju njëkk ja hmm. fi kon wa abu imran abu imran way na ma ahdaso sos na ko rafida kuréelu rafida ab kuréel la si chia wala mutashia ak ñi nga xam ne ñooy jàpp si chia fi bandi ayima si ñenn si njiit yi maanaam ñoo ko sos ba ñenn si kilifa yi di ko def fasaaro koom ñu bokk ak waa siyan yooyu yenn zikri si bu ñu tudd lahum ñeel kilifa yooyu bi salaatu si julli wasaawahum ñu xemal leen bi nabi si yonent bi sallallahu alayhi wa mm, dégg nga julli si keneen ku dul yonentu daal dégg nga nee na loolu luñ sos gannaaw la waaye dan ba tey mën nañoo wax ne fen tashabu naka niru nirul bi ahlil bidaa yi si ñooñ bidaa man yun luñ tere laanu ci moom kon fay yib na war mu xaalifatum ñu wuteeg ñooñ bidaa te waa siyan ñooñ bidaa lañ julli si ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa loolu bidaa la yonent bi rek lañ sañoo julli ak ak yonent yi loolu moom sañ nañ ko def hmm. ku dul nag boo julli ci moom tofal da nga da ngay tudd yonent bi tofal ko ci ñoom moom moo tax wa zikru salaati tudd julli alal aali si ñoom yonent bi wala azwaaj ak ay soxnaam maa nabi gannaaw boo jullee ci yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam hmm. bi moo tax ma ne maa nabi ànd ak yonent bi maanaam tudd leen tudd yonent bi bi hukumi tabii ci atteeb topp la hmm. wala idaafati ak laafal leen ilayhi ci bi laa ala taxsis waaye nekkul jagleel nekkul ne da ngaa ñëw a julli si ñoom direct kon julli si keneen ku dul yonentu daal gannaaw boo jullee si yonentu bi dagan na xaaru ñu ne wa salaatu nabi julli yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam alaa man salaat si képp ku julli alayhi si yonentu bi majaraha <coughs> dawam majara duwaay mooy barabu ñaan maanaam mbiram daal mooy comme ñaan rek yonentu bi boo jullee si moom dafay julli si yow hmm? yonentu bi bu jullee si yow mooy daf lay ñaanal yàlla wa rahmat ak yërëm la waaye lay si nekkul fiyaa ah, julli gi muy julli si yow maana tanzim maanaam màggal wa tawxiir ak weg la nekkul yonent bi daf lay màggal weg la yonent bi moom du màggal kenn ñëpp ko war a màggal julli si yow mooy comme nu jur di ñaanalee doom rek dégg nga waxat xaala taala yàlla mu koy wax ne laa tañaanoo bu leen def duwaa rasul yi dégg nga ñaan ak xoo eh, yonent bi bay na kum seen diggante ko duwaa yi baax di kum ko kum xoote ak ñeneen ñi baax da ñeneen ñi yàlla ne ni ngeen xootante seen biir bu leen ko bu leen ko xootante ak bi wa kazalika nag noonu jibu dana war an yakun mu nekk adduwaa ñaan la wu ñeel yonent bi mu xaalifan di aji wuteeg li duwaa yi naas ñeel ñaan ak nit ñi baadum ñeen ñi bi li baada ñeel ñeen ñi booy ñaanal yonent bi dafa ru wuteeg booy ñaanal keneen la boo ñaanal ñaan ak fooral ko ak war a jublu waaye nit ñi boo ko ñaanalee yonent bi amoo teggin ndax yàlla def na li nit ñi bul ko xooyee yonent bi mm. ama yonent bi moom ni mu lay ñaanalee mooy ñaanal rek دقيقة وهذا لاختيار إمام أبي مظفر الإسفرايني آه، أبو مظفر الإسفرايني لون لتان من شيوخنا جريق سنسرين وبيتي تجلول قال له أبو عمر بن عبد البر أبو عمر بن عبد البري مامي لون لو أخمانا يرنتبي صلى الله عليه وسلم بوي جلسي موم نانشي جبلو مانا مغلقو tanbihun li abi atala xukumul xutbati atab xutba alati bi nga xam ne si nekkul fi aasi moom shahaadatun ñaaru ñaaru baat seede yi maanaam andi xutba mooy commencement wu téere te tuddoo si ñaari baat seede yi mu ne tanbihun li abi atala lam yaskur tuddut al musannifu taalifkat bi fi xutbati ci xutbaam ashahadata ñaari baat seede yi maa àndoo ànd ak ne loolu war a daroot na ما أنا عندنا اللي امر رد سادي نكون خطبه بيب خطبه ليس نقول فيها سموم شهاده اب سيري نيار بار سيري فهي موم كلير دي كوم لوخو الجزمه بي اجي دغ لوخو بو خامي دا فغانا لوخو بو دغ يونت أنا نانا بيب خطبه بو امو نيار بار سيري دا فمن لوخو أنا غانا نانا يعني بوروم تيري بي اندو نيار بار سيري شي خطبام و ان بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله بالعالمين يونت بو خن نانا فو يويب دجي boo ci def rek baax na hmm? nee na xadis boobu axrajoo génn ko Abu Daawud Abu Daawud min xadis Abu Hurayra ci xadis Abu Hurayra marfuu'an muy lu yëkkati fi kitaabi adab ci téere bi mu jàngal ci wàllu adab min sunan yi ci sunan Abu Daawud yonent nee na bépp xutba boo xam ne ni amul shahada mooy seede na yàlla rek ay buur Muhammad yonent ci yàlla comme comme loxo bu dagg kon yow mi def xutba nga wax bismillahi rahmaani rahiim walhamdulillahi wax ñaari baar seede yi moo moo dégg nga dégg nga borom xalil ne li muy wax bokkut saraay boo baax du gannaaw moo sant yàlla juri si yonent bi faqat saala nii laaj na ma jamaatun mbooloo abaana yàlla leeral allaahu yàlla lii ñeel ma walahum ñeel leen maalima taxqiqiik mandargaay dëggal wala boog yooni dëggal wasalaka yàlla sóob binaa si ñun wa bihim ak ci ñoom anfa tariqi yoon wi gën a jëriñ nee na am na mbooloo mu ma laaj balaa muy wax lu ko mbooloo mi laaj nag mu ne yàlla na yàlla won mbooloo moom wan ma xam-xam yi nga xam ne xam-xamu dëggal la xam-xamu dëggal tegtal bu boo xam ne tegu tegoo ko ci làmbatu rek wala diwa ko wax rek yàlla na yàlla sóob ñu mbooloo moomu laaj ma yoon wu jub yoon wu ëpp njëriñ lu ko mbooloo mi laaj nag mooy mu taarif téere dana ko wax ci kanam léegi muy muy muy sharxa loolu mu ne baax du baax du zarfu makaanin zarfu barab la maanaam barab lay tekk maqtuum luñ dagg laa ni idaafati ci laaf lafzan ci baat laa maanan du caageen maanaa maanaam baadu laaf na waaye lam laaf dañ koo dindi tudduñ baat ba waaye mais maanaa laaf lam laaf ma ngi fa wala daa rek tax bu ñu ñu ñu ñu binaal ko la dammi ci damm wa taqdir nettal mooy wa baada alhamdulilah gannaaw ma sant yàlla wa salaatu ala rasuli julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dagg alhamdulilah wa salaatu ala rasuli wa dagg mu mudaaf ba mu mudaaf mudaaf ba lafzan bàyyi fa maanaa ba da nga koy binaal loolu naxu dana ko jàngale waaye moom kalimatun baat la boo xam tustaamal dañ ko jëfandikoo fil xutbi ci xutbe wala kalaami fas yi wax ju fasaa li xat yaa ma qabla ngir dagg la ko jiitam ma a ci la ko gannaaw la ci nekk ci gannaawam baadu lu tax ñu koy jëfandikoo mooy la nga njëkk a wax dangay war a ne ak li ak li ngay mujj wax amuñu relation da ngay dagg wax ji war commencé war wax ju bees su boobaa la ñuy andi baatu xaala wana baadu saafi ñeen ci ngiram saafi ne woy staabu sopp nañ ali daan andi a ci baadu fil xutubi ci xutba yi wala mukaatabaat ak bindante yi booy xutba wala ngay bind sopp nañ nga andi baat boobu iqtidaan ngir roy bi rasulillahi ci yonent yàlla bi sallallahu da ko daan andi lu bëri wa qad qad fasalaa ñeel ko buxaari buxaari baaban ab buntu fi kitaabil jumaa ci téereb jumaa andi eh, fi yonent bi baadu wasakatudna fii ci loolu ahadis ay hadis kasira yu bëri wa tustaamul dañ ko jëfandikoo maqurunatan muy ànd ak bi amma ne amma baadu léeg-léeg ñu wax amma wala waaw léeg-léeg mu ànd ak amma ak waaw wa amma baadu wa maa ihdaahuma léeg-léeg mu ànd ak benn si ñaar yooyu doonal uxraa waris beneen bi léeg-léeg nga ne amma baadu rek léeg-léeg nga ne wa baadu yëpp danañ koy wax wa amma baadu amma baadu wa baadu amma baadu yëpp danañ ko wax wa duxul faayin ak dugg ak faa baadaa gannaaw ga maa amma ànd ak amma waadixun lu leer la waa li maa tadammanatu li maa tadammanatu ngir la lamboono ko amma amma bi maanaa chart ci maanaa chart xam ma xam nga ne amma arfu chartin la ak tafsil dégg nga kon soo waxee amma baadu fa nangam looy wax gannaaw ga dugal ci faa faa googu dafa ñëw nekk ci bopp tontuk chart chart euh, maanaam too bopp tont ak amma moo tax boo ko jëfandikoo amma la nekk ci gannaaw euh, kii ba amma googu lu nekk ci gannaaw baaru nga def ci faa dafay leer naa ñu ndax dañuy xam ne dafa ñëw pour tontu euh, euh, charte bu nekk dafay am tontu loolu ñun naxoo xam nañ waaye maa maa adamiha waaye bu ñàkkee amma fa tadxul dana dugg moom faa googu wala tawahumi wujudi amma ci defeek ne amma a fa boo waxee ne ba baax du fa nangam faa googu ko indi pour ne pour ne mën naa am amma a ngi fa léeg-léeg day am lu ñu tuddee tawahum amma nekku fa sax waaye la mu dugg lu bëri gi mu bëri moo tax nga mel ni mu ngi fa rek nga hmm. def fa nangam waaye bu fa amma nekkul fa jorut ko amma wa baadu fa nangam fa ko jëru ko mais boo fa defee tawahum amma nag da nga koy def wa takun daa nekkal waaw waaw gi istinaa fi indi waaw gu sos wax wa baadu dafay sos wax aw ala taqdir amma maxsuufa wala nga nattale fa amma guñ xasaf ay am maa baadu nga xasaf amma gi def waaw googu ne wal waaw waaw gi ay wadun dafa mi naa ci am amma aw doona euh, taawidin wala remplace ko am na ñu ne boo defee wa baadu waaw gi dafa remplace amma ñu ne waxalal awali boo jàppee ci wax njëkk ji fala amilu ka jëf fii baadu ci baadu alfi'lu mooy fi'lu al muqaddar buñ nattale mm, te mu war a ñëw ci gannaaw gi is ngir a taqdiru nattale mooy wa baada kaza gannaaw lii wa kaza ak lii fa aqulu maa ngi wax bu fekkee waaw gi waaw ak boxam la aqulu googu moo jëf ci baada gi dégg nga parce que baada la te sarfu fi'lu moo koy nasab hmm? wala saani boo jàppee ñu ne euh, dégg Mm, ci waxu ñaareel ji hmm? est ce que comme mu ne ko moom mën naa mu nu ko tuddee mooy kii waaye bu fekkee wutuut waa gi wutuut amma soo baa ci lay aqulu gi di nasab daf ne waalal awali boo jàppee ci wax njëkk ji ci wax njëkk ji mooy waa gi bu wutu amma bu dee waa waaw kese la jàppal loolu soo aquulu gi ngay wax moo nasab baat mais dañ ko binaa rek ndax asaf gi ñu asaf baat bi jublu jublu ci maanaaga wa baadu ay wa baada kasa natale mooy wa baada kasa li gannaaw lii wa kasa lii fa aqulu maa ngi wax waala saani boo jàppee ci natale gi ñu ne waaw gi dafa remplace amma fala amilu lal jëf fi baada ca gannaaw ga amma al mahdufa mooy amma gañ xasaf li niyaabatiha ngir wuuti gi mu wuutan fenn sart ci fenn sart al muqaddara bu jiitu boo jàppee ne amma ma ngi fa nag kon booba amma googu fenlom ba mu am place moom it moo jëf ci bandu gi dee nga fenlu mu muqaddar da amma dafa wuutu fenlu charte fenlu charte al muqaddar bu ñu nattale fenlu charte boobu nga xam ne moom la amma remplace waaw gi ñëw remplace amma kon fenlu boobu moo nasab bandu gi boo jàppee ne waaw gi dafa remplace amma est-ce que taqdim nattale gi mooy ma maa yekkun lu mën a nekk min seen dara بعد الحمد لله كان مسند أبو سعد على رسول الجيل شيئا تبي سلا سلم فقط سألني لا جنم نعم لما ركعوا كان مسند على الجيل شيئا تبي لا جنم أما قالون ليتك ما ما يكون من شيء إنك جيلك فتكشي أما حسب أما باي فوا رك وأجرام براس أما سوى وكون ما ما يكون من شيء نسب بعد لولو لولو قم قم من نحوله فقد سألني إلى آخر بيت ولا عمل اللي في بعض ci baadu al fi'lu muqaddar moy fi'lu bu ñu tëbata moy mahma yakun min shay lolu loolu taxaaju ilay nuxaat waxtu li wuute nañ fi awali man na ci ku ñeeku tuddu bi amma ci amma amma baadu kan mo ñeeku amma baadu fa xeyne daawud alayhi salatu wassalam daawud yàlla na xéwal mucc nekk si moom moo ko njëkk wax wa naana mom faslul khitab moy wax ju fasa alizi bi nga xam ne uti yow jox nañ ko yàlla nee jox nañ ko faslul khitab faslul khitab na neena moy fasa xam nga faslu xitaab mooy teqale wax amma dafay teqale wax ju njëkk ja ak wax ju bees ci faslu xitaab googu di yàlla wax ne moom lañ jox daawuda mooy amma baadu am nañuy wax loolu waxee am ñu ne xusu bun saayida xusu bun saayida moo njëkk wax amma baadu waxee la wax ne kaabu bun lu ay moo njëkk wax amma baadu waxee la yaarubu bun qaxtaan yaarubu bun qaxtaan moo njëkk wax amma baadu waxee la saxbaan waayil moo njëkk wax amma baadu وأبانا ليرلنا أما بعد أبانا ليفيري <laughs> أبانا ليرلنا ما أودح ليرلنا والمعالم فما وحنا معالم التحقيق من والمعالم جمع معلم وجمع معلم بفتي أولي إنك فتا أول جو وسال سي سي أبو نتيل با ميم جي كلام جي نكو فتا وسكوني ثاني إنك كسر أبو نيار وما عين إنك معلم وأصله تسان معلم نمي فيري جمع بدي معالم الأسر وما يجيخت الذي ما يخمن يستدل دين تكتر وبيتي ما ولا طريق تي يون نجيب واجي جار fenn nga bëgg a xam yoon wu mu jaar nga topp tànki yi loolu mooy maalamu tànk yi maalim nag mooy yoon yi ñu won bañ mën a dëggal suñu xam-xam wastaaru abbu na ko al musanif taalifkat bi li maa yu sadaru ci lépp loo xam ne dañu mën a tegtaloo bii ci moom ala taqiq ba mën a dëggal wa taqiqu dëggal mooy lan maarifatu shay mooy nga xam mbir mi bi dalil yi ànd ak tegtalam min xëy taqlidin ci loolu ngay roy fii ci moom loolu mooy taqiq yoon yi ñu mën a jaar ba mën a yegg ci taqiq yàlla ñu ko yàlla won loolu la ñaan ci téere bi wal muraad luñ namu bi maalim yi ci yoonam yi al adilatu mooy tegtal alati yi nga xam ne yoxtadaa danañ gindeekoo biaa ci tegtal yooyu ilayhi ba mën a def a xam masala ak seen i tegtal wal maaruuf lañ xam fii salaka si salaka andoona moom yetaaddaa bi nafsi si boppam salaka wax qaala taala kazalika ne ko nasluku lañ koy sóobee qaala wa qaala wax na moo leen mooy mooy mooy ko fa dafa ma fonum bi directe waaye mu kalaf taalif kalaf ne wasalaka bina lu tax mu wax loolu waa daaw def na ko mu jàggate al musanif taalif kalaf bi baa bàyyi ci baa wasalaka bina kon ci baa gi la yeggee ci lam dugg kaanoo dafa mel ni moom dammanoo daf koo daf koo dox jox maanaa daxala maanaa daxala bihi moo tax mu ne salaka bina da koo jox maanaa daxala ka xawli ni ko wax yonent bi sallallahu alayhi ne man salaka ku sóobu tariqan yoon foofu yonent da koo nasab directe yaltamis di saako fii ci mooy man xam-xam sa xale yomb na laa yàlla loo ñeen ko tariqa yoon ila jannati boo jëm aljana kon salaka daal li gënal siiw mooy dafay nasab directement forom bi kii ne def ne salaka bi naa andi baa xarfu jar ndax ne maa dafa yore maanaa dugg na rek daxal dégg waan foo tariqi yoon wi gën a am am njëriñ moom a tariqu muusi la mooy yoon wi eggale ila maarifati laa ci xam yàlla subhanahu wa taala kawe yoon wi ëpp njëriñ yàlla ñu ko yàlla sóob mooy yoon wu lay xeggale ci xam yàlla loolu rek moo am njëriñ li wam tisaal awaamir nga yoon woo xam ne bu xam la yàlla dafay tax nga mën topp ndigal yàlla yi bàyyi tere yàlla yi waaye xam yàlla xam ne a kàccur yaa iblis benn ngeen wa damir damir fii xawli ci waxam binaa ci li cheikh na sëriñ bi wa man saalu ak ko laaj dafa am eh, si yoo xam ne daf ne wasanak wasalaka binaa anfa tariq rek lañ def waxuñ ba wa bihim kon binaa taarif ka def daf ciy dugg ak mboolem ñi ko laaj pour mu taarif téere bi wa fi baax ni nu soqi nekk na si leen yenn si bind yi binaa ci ñun wa biim ak ñoom kon fa damiru damir bi ci binaa lil musannif taarifkat bi lay dellu faqa dong wa biim nag dem si ñu ko laaj dégg lu ko mbooloo mi laaj tam ñaanal leen yàlla may leen màndargaay dëggal maanaam ñu am yoon wuñ mën a jaar ba yegg ci masal ak seeni tegtal soob leen ci yoon wi gën a ëpp njëriñ te xam yàlla tey jëfee ndigal yi tere yi lu ko mbooloo moom laaj gannaaw moom la ñaanalee mu ne laaj nañ ma muxtasaran téere buñ gàttal baat yi te guddal maanaay xalaa mazhabi imaam yi daf ko ci ngërëm njiit mi malik ibni anas malik doomu anas rahimullah yàlla na ko yàlla yërëm mu bay nañ di aji leeral li ma ñeel la xam ne bii nekk na ci alfatwa ubbee nee na taalifkat bi nee na mbooloo moomu laaj nañ ko mu defar téere boo xam ne dafay gàttal baat yi te guddal maanaa bi te wax ci ngiram Malik Malik doomu ko yàlla yërëm muy leeral li nga xam ne fatwa da ci nekk fatwa mooy la nga xam ne da ngay wax nit ki rek doo ko forcé waxal rek bu ko neexee def bu ko neexee baay boo ko te xadaawa att moom da nga koy wax ne ko nii la force da nga koy def loolu buura ko man borom xam-xam lu man fatwa ubbee lii la yàlla wax mais ndax dafay wax lii la yàlla wax nag gàddu xeet topp ci boo deful mu dóor mukk moom nag li nga xam ne fatwa am ci am na ci lay leeral leeral masala yi boo xamee masala yi ba pare nga topp sa yoon sa affaire la jàng nga saraxa loolu te tëj muxtasaran téere buñ gàttal sifatun melo la li maxzubi ñeel ñu xasaf ala taqdiru mudaaf nazrefu mudaaf ay taalifu kitaabin sant nañoo ma taarif téere muxtasarin buñ gàttal ñu xasaf loolu lépp ne muxtasaran téere bu ñu gàttal wala ixtisaaru gàttal dam mu baax di sey mooy boole lenn mbir daa baax di jëm ci lenn li ijaase pour gàttal boole lenn ci lenn pour gàttal loolu mooy ixtisaar comme nga lem yére yére da ngaa boole lenn léegi lenn le woo moom iraadul maani iraadul maani mooy rootal rootal ay maana al kasirat yu bëri bi alfaasin ci ay baat xalilatun yu néew maanaa yu bëri baat yu tuuti moo tax ñu koy fee luñ gàttal baat yu bëri maana loolu mooy téere buñ gàttal maanaa yu bëri na waaye baat yi dafa tuuti moo tax xalil ku ne sharha ko ndax maanaa dafa bëri waaye baat yi dafa tuuti qaala woon annawi imaam nawawi fi tahzib asma ci seggi tur yi wal luxaat ak lu ak langue yi ni ixtilafat wuute na ibaaratul fuqaha yi firig borom xam-xam yi fi maanaa muxtasar lan mooy maanaa muxtasar xoolal rek lépp lañu wutee lépp imaam nawawi wax na ci téere mi de tahzib asma wal luxaat ne borom xam-xam yi wutee nañ ci lan mooy maanaa muxtasar fa qaala moo is faraayi wi isfaraay ne xaqiqatu ixtisaar dëgg-dëgg ixtisaar gàttal mooy dem mu baax di chey tàppi leen li ilaa baax di jëm si leen li mooy li njëkk wax xaal mu ne wa maanaawul loolu loolu lay firi ci dëgg-dëgg wa maanaawu maanaa mel ni ci borom xam-xam yi raddul kasiir mooy nga delloo lu bëri ilal qalil jëm ci lu tuuti wa fil qalil te nekk na ci lu tuuti loolu maanal kasiir maanaa lu bëri lépp lu bëri nga dugal ko ci lu tuuti te maanaa ba xaj fa loolu nga def baat dugal ci maanaam yu bëri itam xaj ci baati gàtt yooyu loolu mooy la njëkk wax xaaral mu wax ne moom ijaabu laf si mooy gàttal baat yi maa istifaay maanaa nag matal maanaa bi gàttal te maanaa bi mat loolu kay mooy nga jël lu bëri dugal ko ci lu tuuti lu tuuti li am bu bëri boo xam ne nii dugg na ci moom benn la rek mooy gàttal baat yi matal maanaa yi wala mais ku tudd saahibu saamil borom saamil ak lu kudul moom hada saani bu ñaareel bi gàttal baat yi matal maanaam pourtant <laughs> sorewuñ de ah wa zakaru maa tudd na leen jëmeen mboolem seen almahamili mahamili tudd na yëpp qaala woon saahibul xaawi saahibul xaawi ne qaala woon alxalil xalil ne huwa moom maa mooy xam ne dal la tegtal na xalilu lu néewam ala kasiri ci lu bëreem yusamma dañ ko tuddee maa dal loo xam ne tegtal na xalilu lu néewam ala kasiri ci lu bëreem yusamma dañ ko tuddee ixtisaar ixtisaar lu tuuti li bu tegtalee lu bëri lii mooy ixtisaar ba léegi benn la rek ndax baari tuuti yi bu tekkee maanaa yu bëri kooku ixtisaar la lii ci maay ngi dajaloom wa diqat yi ak sewam kama sumeer comme nañ tuddee mexsaratan sajaada mexsaratan sajaada li ci maay su suyóor yi ngi dajaloog buum yi dégg nga buum yi ñoo dajaloo ci biir ñu tuddee ko mexsara hmm? dégg nga wa xasrul insaani ak ndigal doomu aadama yi ngi dajaloo gim dajaloo xasru dañ koy firee ndigg yaxeeg yëpp fa dajaloo lépp nekk fa wa dëqat yi ak sewam intaha jeex na dafa sew waaye lépp fa la dajaloo daanaka moo yeenu suuf gi yéen téeg moo téye suuf gi yeenu kaw gi te pourtant dafa dafa tuuti loolu mooy luñ gàttal baat yi guddal maanaam intaha jeex na bi laf si ci baatam wutee bu ne de <clears throat> man ngaa wax ne am na solo waaye seen wutee bii moom boo ko seetloo ba seetloo ko da ngay xam ne benn wax la wa xam bi ala mazhabi Malik Malik nag fa la ñuy taxawee wala mazhab mazhab luqatan ci luqa at-tariq mooy yoon wa makaanu zahab ak barab bi ngay demee mazhab mooy yoon ak fi ngay jaar pour dem loolu lay firi ci luqa su ma saara mu mujj àndal fuqahaa yi ci borom xam-xam yi xaqiqatan di dëgg-dëgg on fiyatin bi këjug aada fii ma zahaba ci la dem na ilay jëm ci moom imaamun ab imaam min ay mati ci njiit yi léegi nag borom xam-xam bu ñu waxee mazhab li xam ne benn borom xam-xam ci borom xam yi Eh, masala moo xam ni nii la ko borom xam-xam bi gisee ni Maalik gisee noonu lañ tuddee mazhab Maalik ni Shaafi gisee ñu tuddee ko mazhab Shaafi loolu lañ ko mujj ci tuddee waaye mazhab ci cosaan li muy firi mooy yoon ak fa ngay jaar pour dem hmm? <coughs> mu ne akaam iccaad ci at yi nga xam ne at yi këju góoru la maanaam bu dee masala mi atte bi atteeb iccaad la yaay xool rek ba xam noo ci génnee masala hmm. na ko Maalik gisee loolu mooy mazhabu Malik na ko Shaafi gisee amaa loo xam ne alquran la moom dañu wax mazhabu Malik parce que loolu ay alquran ju leer la wayut loo ko danañ ko booyee nañ la mutaaxiriin ci way mujj yi min ay mati mazhab bi ci ñiitu mazhab bi dégg nga dégg nga <clears throat> alama bi ci la nga xam nekk na alfatwa ubbee ñu mujj nag bu ñu waxee mazhab dégg nga dañu namm eh, dañ dañ koy namm dañ ci namm ñi nga xam ne ñooy jiitu mazhab ñooy jiitu mazhab bi dégg nga waaye la ñu wax ta fatwa la ñu wax teg ko ci fatwa dégg nga waaye teguñ ko ci xaddaa la ñu wax teg ko ci fatwa maanaam lañ fatwa ubbee ko nga xam ne bool neexee jël bool neexee bàyyi léeg-léeg ñu ne mazhab na mu ci la nga xam ne nii moom la Malik wax ci fatwa li mooy mazhab Malik ay eh, lii mooy waxu Malik lii mooy waxu Shafi léeg-léeg ñu ne mu ci mazhab lii ne Malik gis ñaar yu sorewuñ dégg nga min baabi itlaaqi shay mu bokk ci bunt ak jooyal dara laa juziyee ci xaaj xam nga mazhabu Malik du wax jooj kese waaye buñ ne wax jii mooy mazhabu Malik muy bokk ci bunt dara hmm? ci lépp du wax jooj rek mooy mazhabu Malik waaye wax jooj dara la ci mazhabu Malik wax ji njëkk ji mooy mazhabu Malik mooy nam gisee masaa yi mu gisee yépp day dugg ci biir am na ñoo xam ne nag wax ja ci boppam lam def fatwaaj ci masala jëmmi masala boobu leen naan lii mooy mazhabu Malik mais nag mu ci ne wax jooy rek mooy mazhabu Malik leneen loolu wax jooy dana mooy mazhabu Malik mu bokk ci mun tab dara ci léppam dégg nga ni ko wane abi lahab ñaari loxo abu lahab alkona fekk jëmm jëf la ci loxo tudd waaye lépp la ci dégg nga xalaa ci xaajam bi am solo ngi bokk ci bontu jooyal dara ci xaajam yi nga xam ne mu am solo ndax wax ni ko bi sallallahu alayhi wa sallam aj arafa arafa la يرنت مع الحج عرف له ما دواج عرف كسره ما عرف دفتي أم صلو دينا قيل يا خمني ما لك دفن جفر والو اللي دفهم صلو لا نزاق نخله مو ألهم مو قرام صلو عند الفقيه شكي خلي مو ديق فقه المقلد كي رأي تديق فقه كي رأي دينا أم صلو شمو موي مصر يا خمني مالك شبهم دفن جفر والو اللي وحنا اللي موي مذبو مالك دينا والله يلا أعلم ما أجي كم وقال فيه ñu war a dugg ci tarjama imaamu malik kan mooy imaamu malik doomu anas rahimahullahu taala in uridu ila islam mastata'tu wa tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بالعلم time.